dalati leen ak jàmm ci seen euh, émission confession avec euh, Mame Coumba fii ci biir SSP TV comme ni ma koy defee dama leen di indi euh, léeg-léeg ñoo xamante ne dañoo réeroon ah ma dem loqati leen ci seen nii fii ñu nekk indi leen teg leen ci plateau bi joxaat ko Sénégalais waaw tey nag ki ma leen demee loqati leen kenn ku dul Pape Birahim Sénégalais yi miinoon ko lool wala miin ko lool. di use doon use ay wayam mu neexoon lool moom moo fi wayati woon lan sax sama xarit bi man xam naa ni daal na bi moom lañu te na bi daal na rek góor waaw waaw ñun dañuy ànd ak na bi ba dugg aljanna ku ko yaakaar doo réer xam ngeen ni kii kii kii baat baa ngi fi ba tey Pape Birahim nuyu naa la dalal maa ngi lay ziar maa ngi lay fay euh, Mame Coumba euh, vraiment di rafetlu sa émission bi macha allah mu nekk émission bu neex bu neex sénégalais mhm. euh, naa ne ndax ki koy def moo am ki koy def moo xam ay valeur am. ki koy def ma yàgg ko xam ñoo xamante bu baax macha allah. mu nekk nit bu xam boppam bu xam mooy kan xam fi mu jógee donc émission bi du def lu neex. day neex day neex sama xarit bi dama ko namoon nag sa fait longtemps gisuma la macha allah ah alors Pape ñu commencé li nga xamante ne moom mooy confession comme ni ñu koy defee saa su ne Pape Birahim waaw Pape Birahim ma ko waxee mooy euh, un de la Médina juddoo Médina yaroo fa màggee fa <laughs> defee fa lépp jàngee fa et euh, nekkoon benn éducateur mhm. jàngal fa ay xale yu bari yoo xamante ne actuellement ay mag lañ mhm. euh, Euh, mun naa ne daal Médina mooy sama sama sama base la euh, euh, li ñu naan fukki penc ñaari bokk ci takk ci rip nag macha allah. alap lébu wala. ah alap lébu wala. dégg ma ma ne alap lébu. waaw ñun ne mën nañu lañu jaxasook lépp. Ah. géwël lañu ay lébu lañu. xam nga ay ay joolaa lañ ay séeréer lañ ay ay njaago lañ parce que waaw voilà parce que Médina c'est le Sénégal voilà c'est le Sénégal aussi Médina dafa dafa dafa boole ñëpp dafa boole ethnie yu mm. bari yu fa nekk xam nga Pël Fuuta yi joolaa yi ñëpp jaxasoo mm. donc maa ngi fàttaliku euh, saa bu ma xiifaan en face suñu kër kër joolaa yi ndeysaan kër Maama Sonko mm-hmm. yaay Moodu joolaa ak euh, Ado fa dugg ndax da nga fay fekk ñànk tang bu saf sap waaw kalbu foofu laa daan laa daan laa ci bëgg a dee. ndax temps yii maa xam nga. su ma bëggee lekk rek fa laay dugg donc mu nekk Medina nekk sama site boo xamante ni eh, dama fier quoi dama fier aussi oh, mu am lu ma def lu bari. Hmm. Medina daf ma forcer ci lu bari quoi daf ma forcer ci xam sama bopp daf ma force ci jaamu yàlla daf ma forcer ci dara foqul samay bët. aussi oh, xam nga daf ma jox benn dëgër laay boo xamante ni booy Medina du du wéeru. du topp kenn booy Medina yàlla rek lay topp ak yonent bi. ndeysaan voilà alors macha allah mais Pape ba tey dama lay ah, gannaaw bi nga juddoo Medina yaroo fa màggee fa si hmm. hmm. sa ay 15 ans. Hmm. lu la fekkoon ngay def. yii waaw terrible. daa <laughs> ah, wax ci Medina Medina dafa doon loo xamante boo fa juddoo yaroo fa. ak aussi am ñoo daan fréquenté ay façon nit yoo xamante ni ay réel quoi la ñuy doon quoi te réel dafa am lu mu enveloppe euh, yu bari muy mhm. euh, que ni da ngay xam yaay kan doo xam ñoom doo xam euh, wax yu sew doo xam ay dugg ci sa lu sew nekkul mhm. waaw aussi ma nekkoon koo xamante ni mën naa lu ñu def ci Médina bi rek sama xarit yi ma daan àndal moom <laughs> maa ko daan dirigé te li ma leen daan ci li ma dara baaxu si comme yan li ma non non mais dafa am am na am na xeetu bêtise la Pape Birahim daan def à 15 ans am na fooy jaar ci sa ci sa am na ci yoo xam ne sax doo ko bëgg expliquer mais ni ma terrible loolu moom dafa garaaw moom ah, mais mën nga ñu ci ñamal tuuti euh, non dafa doy waar comme nan loo def boo def boo xam ne tey fi nga toog nii rek xel bi nee na ci xam nga déjà ñun ba nga rus ko wax xam nga déjà ñun dañ daan toog suñu suñu parents yi duñu xam ñun lan la ñuy def ah. dañ daan toog ay ay jours yoo xamante ni bés boobu xam lan lay doon bë mooy bésu xeexi xeexi. waaw dèjà ngeen yor ay ay bant ñu yor ay affaire xeexu gang yi daal xeexu ñu dem dem Fann ndeysaan maa ngi nuyu sama xarit yi fa nekkoon ñoom ñaaw ah vraiment gars yi nga xamante ni samay gaan lañu woon léegi bu ñu ñëwee dañuy daje ci côté euh, kii bi quoi dañuy daje ci côté conduire euh, Fann bi nekkoon foofu. xeex bi naa tàkkarnaase dóorante ay ay ay ay ay ay ay ay bant dóorante ay chaine ndeysaan ñaaw sama gaañ la mos na ma am na benn xeex boo xam ne ñaaw paaka la yor mais daf ma ko rombal mooy que ni dama la xëy rek après ñu ne ñu ne dee na ci ci ci ci ci ci ci assant quoi insouciance su xale moo leen jàppoon. waaw moo leen sax danger bi ngeen doon. waaw danger bu garaaw garaaw mooy que moo moo tax ma ne la dañ daan dund loo xamante ni affaire réel lay doon quoi. guddi gi maag sama gars yi ñooy nekk xam nga di defandoo lu ne. ñun dañ daan lu ne nag moom lañ daan def quoi hmm. xam nga euh, ba am benn moment boo xamante ni dama dama dama euh, toog sama xarit di waxtaan fekk gaa yi ciblé nañ ñu quoi boole nañ ñu police et tout euh, ma génn kër ñoom laay ñes war a dem ci gars yi fekk gars yi seen naa la mais dama doon parce que ci rusi bi lañ hmm. ma ne xaaral ma ñëw dem ci gars yi waxtaan mais ni may ni may génne kër laay pour dem ci gaa yi rek ci la policiers yi ndekete ay engins la ñu yor civil ou quoi ñëw jàpp gars yi rek ma dëppaat <laughs> mais man man mi may jàpp Fane lañ ma jàppee <laughs> parce que dafa benn gars yi ndeysaan euh, mun naa bañ a euh, ci Medina bi la nekk vraiment mm. nekk grand bu baax. Mm. Euh, dafa mos a ànd ak copine am. lu ma jënd copine bi copine bi mer. jël gâteau bi bi mu ko jënd loon sànni ko. gâteau bi. gâteau bi sànni ko du anniversaire. loolu la <laughs> xam naa quel mer. Mm. <laughs> ma ne gars yi ne gâteau bu ñu tëmbal ci ci ci ci ci ci euh, fenêtre bi la quoi. waaw ma dem récupérer euh, gâteau bi. Mm-hmm. gars yi toog lekk ko. waaw ndekete bi ko lekkee comme ma maa ci gënoon xaw a euh, terrible. Mm-hmm. sama tur bi xam nga dafa ni avant ñuy woy sax seen tur day day dem fu ne quoi. Mm-hmm. léegi waa ji dem porte ma plainte ci gâteau. ci gâteau gâteau la ma porte plainte. <laughs> te avant loolu ay ay dóorante ara yu métti leen dóorante ma ak moom ci russis bi. xam nga. comme dama xawoon ndaw nag. mais du ma daw. ñu ñamante fa ay arrêt yu baax ndekete moom xëy na dem porte ma plainte suñu waa kër yëguñu ñoom. man dama mm-hmm. daan def affaire yoo suñu waa kër duñu yëg ñoom dañu doon jékki-jékki rek ñu andi leen nee naa la macha allah benn néew ne leen kii rey nañ ko fii parce que man fi ñu ma jàpp yëpp di ma dóor dafa mm-hmm. dafa bari. <laughs> dama def ay mm-hmm. bêtises yoo xamante ni nee naa la mënu ma nit ma waa ji ne ma mu mu ñu ma toog rek serveur quartier bi andil ma plainte ne ma diw moo la ko jox ma ne ko ah bon mu ne ma nee na daf da nga da nga da nga ko agressé nangu gàttoom agressé nangu ma ne ko man agression man nangu ko nangu gàttoom mu ne ma dem police rek ma dem police ma ñëwee commissaire bi euh, ne ma yaay diw ma ne ko mu ne ma ma ne ko waaw mu ne ma diw moo la fi andil moo la fi euh, kii plainte lan ngeen jotee. maa ko ne man dañu toog dañu di waxtaan ay ay presque ay def naa ay trois trois heures du matin parce que ñun fajar rek dañu tëdd. Mhm. trois heures du matin ma jékki am ku tëmbal benn gâteau ci ci ci ci ci kii bi euh, ci euh, fenêtre oto bi ma dem jëli gato bi lekk ko mu ne ma gato la ma ne waaw ma ne waaye yow jugal nga dem waaye. <laughs> ah moo yee nag vraiment gâteau quand même. gâteau. Mhm. aussi dama daan toog ba guddi gi ma ànd ak sama gars yi mool dëkkoon sama sama sama gàlle. en face quoi ñoom Thielani. ak ñoom euh, sëñ Saar dem fanaani géej benn su dañuy fanaani gaal gi këppu. naufrage. gaal gi këppu ñu fexe nekk ci gaal gi di kër kërti gaal gi kërti kërti gaal gi ba ëlbati ko asko nekkaat ci gaal gi yëpp ay ay affaires yoo xamante ni dama koy dem def. bu ñu xëyee sa conscience. voilà xam nga mooy que ni affaire yu bari daal même bu ma ko gisee benn kër bu parce que dama amoon rab dama bëggoon gerte tubaab. Mm. su ma xamee <laughs> kër bu am gerte tubaab fajar 7 heures du matin laay tëb ci kër gi. dem aji dem aji. am na boo xamante ni man maa yee ñoom Mansour Baaw Adama Ndiaye ne leen dañ leen dem am na euh, garabu gerte tubaab bu nekk ci ci ginnaaw koñ bi quoi. bi ñu demee secteur heures du matin la xëy bi ñu demee 7 heures du matin ñu yéeg bi ñu yéegee dagg ba jàpp garab yi ba xam nga ba euh, dagg lu bari quoi ñun daal ni ñu demee rek rek grand bi nekkatee ci fenêtre bi la jaar. rek gaa yi daw man ni may dawe ñu jàpp ma waa ji dóoruma ay arrêt yoo xam ne toog naa une semaine yoo xamante ni ma am ko ma <laughs> parce que sama gémmiñ gi yëpp dafa waaj da ko dagg dóor ma dóor métti dootoo sàcc de moom gerte tubaab moom non marché Gueule Tapée pël Fuuta yi billaay maa ngi leen di jéggul ñoom ñëpp di leen maa ngi leen di masawu <laughs> da nga naan laale <laughs> <laughs> kon Pape li nga eh, Pape Alioune Pape Alioune sama xarit ndeysaan ak ñoom baa bi Sambalaay oh, Abes Babou Ndiaye Alaaji Ndiaye. Mhm. ñëpp ñoo doon nekk Modou Diola Pape Alioune daan wax naa moom Cheikh Diagne li may dugal nii man lu ma dugg yaa ma si dugal. donc mu nekk affaire yu graaw yoo xamante ni euh, mun naa ne après boo ci jugee fréquentation yu bari sax doo ko mhm. que ñooñu ma doon la. ndeysaan bari nag gaañu nañ euh, presque ay sept personnes. huit dañu deewee jeune quoi. yal na yàlla yërëm. te à chaque fajar macha allah dama leen di ñaanal. waa waaw bilaay mu doon affaire bu triste quoi. ñoo xamante ni bi ñu gaañu kenn amul ci 40 ans quoi. Hmm. ñii bàyyi nañ fi ñaari doom ñii ñetti doom xam nga. moo tax ba nekkee jeune souvent. Euh, yàlla ndimbalu yàlla après ngay am rek. yàlla mooy wax ni que waaw dina yàlla hmm. moo lay sàmm. mais man li ma nekkee woon man daan ma bi mu sama wàccee bu ma wàccaan jàngi ba wàcc duma du ma toog ci kër gi. une heure bu jotee almeer yi damay fekk ci dama xam wax ma. la may fekk may dem uti ay picc. wala almeer yi day. almeer yi de la la dugg. <laughs> Eh. njolloor. déjà nit ci daan sangu ci géej gi di sangu géej ay plongeoir wala man daanu mën nangu dem ci géej gi fi nit ci di sangoo taatu almeer yi laay sangoo man. mooy mooy li ma la wax rek man moom beneen façon nit laa woon quoi. Ah, yow tamit opposé woon un peu les gens. dañuy daw yow ngay. waa vraiment ci ñoom ah. vraiment man am na ci benn moment boo xamante ni sax euh, ci sama sop rek. mooy loolu daal. bii moom ñu ngi ko yeggali bii moom ñu ngi ko yeggali ci sa loo defoon ci armée yi yow yow Pape Birahim. non ci sama sop li naan yàlla des fois bu la bëggee bu la bu la bu la bëggee dimbali. bu la bëggee dimbali da lay dimbali. parce que am na benn instant boo xamante naa benn naa ne man sama xel mi nekkatul quoi. da ngaa jommi woon. non sama xel mi daal man xam naa ni man xam naa li ma def ba tax man ma nekkoon benn ma ma dof ci saa si quoi. loo def ay teg ko boobu ñu ngi nekk booy. man doxam naa ni man dama dofoon parce que xamatuma lu xew te man li ma def man xam naa ko man. waaw loolu comprendre nga ah, nga dofoon daal instant boobu. dama dofoon carrément léegi lu ko indi woon. dugg ci lu ma war a dugg. ngaa demoon sulli ji benn. man daal dama dugg ci lu ma war a dugg dof. non sulli kay bokk lu may sulli. doo def man li may li may sulli. waaw wax man daal mos saa fekk daal. waaw saa fekk mu saa dugg ci alméer yi parce que day naan des fois yàlla boo bëggee sauver nit. mos dugg ci alméer yi gis nit buy bu ma gis ko ci bàmmeel bi mu suul fa ay affaire. ah suul fa ay bopp xaw ma lan ak lan ak lan waale man ma gis ko ma bàyyi ba mu dem ma ñëw sulli ko man waaw dëgg nga mais man la ma defoon man ba ma xam ba dof man man xam naa ko parce que jour ba bi ma ñëwee bi ma ñëwee dañaa ko ba ba tëdduma da suñu kër tëdduma fa kër joolaa yi li ma lay wax fa laa parce que sama xel bi nekkatu nekkatu fi loo gisoon bis boobu waaye Mame Goumba am na yoo xamante ni kay nee naa xam nga li ma la ci li sax neex na ne def naa fa loo xamante ni mais man dofoon naa. mais gis nga dara daal. une daal laa fa doon dugg njolloor. waaw loo gisoon nag Pape Birahim. non la ma non non xam li nga gisoon wax ñu ko ñun bëgg nañ xam ne man. dama so la ma bëggoon dofloo man maa ko def. waaw lan la. xam nga voilà. loo defoon. léegi ma toog une semaine. loo defoon. dégg nga ma ne maam maam Kumba ma ma toog ay une <laughs> semaine. Pape loo defoon yow tamit nag <laughs> ba mu war la yóbbu sa xel mi. non mais c'est c'est quoi. loo defoon Pape. wala hmm? bëggoo wax ni nga defoon. def naa lu garaaw rek. loo xamante ni moom man xam naa ne defoon naa def carrément nag li ma desoon mooy parce que benn instant dama naroon simmeeku. Hmm? si. c'est-à-dire que def ci sama ndaw lu ay affaire yu ay yu am yu danger quoi danger yu garaaw moo tax yàlla nee naa la bu bëggee. dimbali léegi nga ñu ko wax comme ça xale yi nga xam ne ñoom nar nañ ko def ñu bañ ko def. te xam ne non xam nga la mooy que ni boo nekkee sa doom même buy jàngee. bu jàngee wàcc. xale yi del xool contrôler contrôler xool li ñuy def lan la ko xam nga man yàgg suñu kër man yàgg nañ ma jàpp ci ay bërëb yàgg nañ ma jàpp di ma dóor euh, euh, may ñëw ñu naan ma lan moo la dal fi ma naan dama daanu dama laa fekk dañ may dóor man maay def fii ñu may dóoree parce que ma ndawoon nag. ndaw ba pare sob non ndaw sob am fit te bala nga may dóor dinaa jéngu ba pare. mais danga may dóor parce que sama tuuti woon. waaw nee naa lépp lu ñu daan def. sama xarit yi lépp lu ñu daan def. Ah, man maay diriger. dugal ci ñoom xam gaa yi xam nga. mais mais sant yàlla ko moom alors jamono boobu ban classe nga doon def. non man da xam nga man dama doon jàng euh, arabe fi ma daan jàngee arabe suñu stage maa ngi koy maa ngi koy nuyu. mun naa ne man jàng naa ba ay niveau terminal yaa ngi dégg fi ma doon jàngee arab fa lañ daan jàng ñun fa lañ daan jàngee lépp dafa mel ni tey genre tey internat yi ñu ci jël waaw di jàng français di jàng arab comprendre nga bi ma jógee foofu après dem naa escaf parce que escaf escaf mois boobu boo amul euh, yeneen niveau yi doo fa dugg quoi léegi bi ñu ñëwee maak sama benn xarit Malick Gadiaga ñu dem fa gars yi jël ñu defal ñu test test bi dañuy jël téere boo xamante ni tey tey mun parce que matière yi ma jàng man dafa bari jàng naa ay juxaafiya jàng naa ay naxu jàng naa ay ulum mm. jàng naa ay euh, mm, fiq yaa may dégg dama jàng grammaire arabe quoi tu vois mm, maîtriser ko donc bi ñu ñëwee ñu defal ñu test euh, fu euh, imam bi non fu stage bi prof bi fu mu daggee yow yaa koy eggali fu mu daggee yaa koy eggali ñu ne carrément ñii niveau terminal la ñuy dem xam nga léegi nag moment nag bi ma bi ma demee ba ñuy def terminal di jàng fekk nag vraiment suñu suñu stage bi ñu doon jàngal bëggul woon sax ñu dem parce que à un moment donné man maa daan jàngal xale yi mhm. maa daan jàngal bu way jotee maay way comprendre nga léegi bi ñuy ñëwee ne ko dem nañ fale ah mu ne waaw ah baax na yàlla baax na mais bi ma demee foofu ci laa commencé nag di dugg ci ay fedda wayantu quoi di nga demee Escaf. bi ma demee Escaf di jàng ci laa commencé maak Malick Gadiaga ñooy ànd doon ànd moom sama xarit la boo xamante ni ma depuis ba âge maak moom ñooy ànd quoi xam nga ñoo lépp léegi bi mu fa demee commencé jàng euh, yooyu ci la commencé rap ay xam ay 99 18 ci la rap hip hop commencé gaal seen affaire bi xam nga léegi ma commencé nag di déglu Bob Marley di déglu euh, Morgan Heritage xam nga noonu di parcuriser nag après way yi mel ni man bizarrement. affaire yi di ñëw si yow. yi waaw dafa mel ni affaire yi waaw dañu ko daan sol quoi. mais baat bi mun naa ne ni muy ñëwee loo xamante ni que ni yàlla moo ko def. benn miracle la c'est destiné. yee miracle la boo xamante ni man miracle lañ ma defaree sama baat te du ma loolu du ma expliquer nu mu demee. parce que comment ça nu mu nekkee miracle. non non non parfois am na yoo xamante ni yàlla dañ la koy defal xamoo ndax am nga aussi euh, am nga euh, nu ñu koy waxatee am nga droit expliquer ko je ne sais pas. mais pour wan Sénégalais yi que ni man sama baat du gis nga boo xoolee. du loo travailler du kii da nga jëkk sa xam nga Mame Penda boo xoolee ci histoire Sénégal. Mm. histoire Sénégal. artiste bi njëkk a way ñu naan lii baat la du baat mu doon miracle ci nit yi man maa ko def muy 2007 ci Serigne Mbam ñu naan lii baat mënul mel ni ordinateur la. ah du woon ordinateur. non du woon ordinateur ordinateur yàlla mooy li ma lay wax ni miracle la boo xamante ni yàlla dañ ma ko defal daal. dañ ma defal dara ci sama baat mais du ma wax. fan la la la jot dalee. non non man guddi la bëccëg la da nga tëdd gént ko wala siiti ko mun naa wax loolu bi may arrivé parce que d'accord man laayeen laa si naa li Limaamu laa gëm yaa ma dégg gëm nag maam borom Tuubaa gëm Sidi Hadji Malick Baye Niass Bou Kounta gëm ñëpp mais moment boobu ma nekk moom sax laayeen hmm. ok voilà mais affaire boobu bi may arrivé bi biñ ma koy defal man it ma gën nekk jeune mun naa ne place bi ma nekkoon Touba la. Touba. nga tëdd guddi gént wala siti ko. benn affaire bu miracle la rek bu bu doy waar daal waaw ci ci gént la ma arrivé ñu may lu ñu may defal daal te ki ma ki ma ko doon defal def ma laaj lan lan def ma ne ko lii laay def moo tax man sama sama sama voix même ba ci sama way mun naa mun nga ma jox way boo xamante ne mun naa ko bind ci espace su du egg sax 30 minutes. ma créé la mélodie maam benn Kumba man damay tëdd ba guddi sax ñu ne ma woyal lii xam nga looloo gën a garaaw. Mhm. ñu ne ma woyal lii. wala nit di way artiste buy way nga génn comme sa artiste mun na génn ne maa ngi préparé lii ma tëdd ba guddi ñu wan ma li nga ñu déglul ma li ngay way yow affaire bu garaaw. kon yow su jinne garaaw nañ. non non bu doy waar ma déglu yow li ngay way avant nit ci di ko déglu. jin sa jinne yi dinañ non je sais ay jinne ak ay affaire xaw ma jinne la xaw ma leen <laughs> lan daal mais damay tëdd ba guddi ñu wayloo ma lii na ma woyal lii ñu jox ma mélodie jox ma harmonie jox ma lépp wala nit de préparé dara ma tëdd ñu wan ma li muy way <laughs> comprendre nga waaw balaa may duggaat ci mbirum way yi xeet yooyu parce que yow foofu il faut ñu taxaw fa waaw comme da nga am ay jinne yu lay dee ay way daal faaw nga wax ñu jinne yooyu fuñ ne ndax waykat dem wër jinne yi non non non non ma dégguma na la am na loo xamante ni yow man dama doon yàqu. ndax ah, la doon way neex na. non non si. bat bi macha allah. waaw mais lu yàlla loo xamante ni c'est dafa dafa nekk ci man aussi nag ba mu nekkee ci man ba pare ba mu xam ne que ni carrément am naa am na voix mais dama yàgg di di di ñafe di bëgg innover man ba may de nekk euh, école des arts di jàng ji musique maa doon fayal sama bopp te boobu ma dërëm. alors euh, bi nga demee Touba affaire yi ñëw nga commencé bëgg ko ci nga. décidé dem jàngi. musique bi ma voilà bi ma demee nag bi ma demee. Euh, kon dafa nga commencé way succès bi ñëw nga doog a commencé jàng musique wala sama première màggal. sama première màggal est comme si c' comme si dama daj dama gis la dama gis affaire bi quoi affaire bu affaire bu doy waar la par la suite ci laa ñëw def sa rimbam affaire bi xam nga. def ni mu def genre ni ci kii xam nga tey yàlla bu lay defal dara mun na la ko defalee ci place bu ne. absolument. mën na la ko defee ci place bu ne. te mooy li ma la wax man tijaan la tey bu ma doon man kii laa nu mu tey bu ma doon euh, wax ci ci ci dara lu lu lu luy luy de may impressionné fi nga xamante ne man fa laay nga ba macha allah li ma li ma li ma dëkkee di way Seyd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam nga ni maam borom Touba moom mun nañ ne mun nañ ne mooy yoonante bi parce que léppam yonent bi la. dëgg la. comprendre nga. Mhm. bi ma toog benn euh, un certain moment ni ci gëj ma dégg gëj ma gis. Mhm. ma gis <laughs> man vraiment sama parcours dafay xaw ak dafay. mais sa parcours moo ñu fi teg nag Pape Birahim. loolu moom laa ngay ngay commencé benn affaire. les gens ont envie vraiment de mm-hmm. après nga dagg ko. non non non parce yaakaar sax man. benn ah, instant bi may bi may yaakaar ni benn moment boo xamante ni peut-être que affaire yi metti na parce que man am naa benn dama am benn passage bu bu tar ci musique. waaw passage boobu dañ fay ñëw. boobu. Euh, ndeysaan macha allah maa ngi koy wax sama benn xarit wax naa ko rek temps yi Ibou nga yàlla wane ma wane la ma man mam borom Touba ka mu ne ma carrément que ni daanu moom doo ko def. waaw ah, kooku comprendre nga donc mu nekk doon loo xamante ni mooy li ma lay wax parfois nit dina nekk dara di wax ci loolu pour na ña mu nekkal mais man laa laayeen la donc su ma waxee ci moom borom Tuuba ak ni euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ma saxoo di way man bi sama changement jotee bi ma waree changé yonent bi moo ma changé boppam pas ci ay ay ay dama koy way ba ba xam ne léegi maa koy way xaaral ma changé waratuma def lii déedéet changement bu leer parce que ma nee naa la man dama dëngoon. d'accord léegi da dëngoon. say say waajur jamono dëng boobu noonu ñoom la moo nekkoon seen taxawaay. waaye mënuñu ma digérer rek di ma bëgg di ma bëgg a rey rek parce que man moom kenn mënu ma woon digérer man suñu muy samay mag muy samay lépp lu ma joxe ma nit lekk sa du ko lekk. parce que parce que <laughs> dama capable woon sama grand yi maa ngi fàttaliku temps bi ñuy. <laughs> maanaam wóoluwuñu la woon yow. kenn wóoluwuma sama grand yi Moussa Ndiaye oh là ak euh, euh, Moussa Ndiaye. Omar Sarr Bàcc ah, ñoom naa ko Sarr oh là euh, kii yàlla na ko yàlla yërëm euh, dikkee bu ñu daan attaay ci biir kër gi man la ñuy yónnee pour mu utal leen ndox. Mm. pour dire que xelu saay-saay baaxul léegi comme dañ mën a yónnee parce que boo xoolee kër yi. danañ am bari bërigo boo xamante ni mooy daan bu doon bërigo douche bi douche bi nga xamante ni fa la nit ci di di di di ko mm-hmm. jëfandikoo mm-hmm. saa bu ñu ma yónnee ndox pour ma tànqal leen ci douche bi laa leen di tànqalee ndox ñu attaaya ba attaaya bi saf naa leen ci ay ay saa bu ñu attaaya ba fa leen di dara man daal benn jour laan di tànqal am ku romb rek ci ñoom mm-hmm. ne mais yéen kii is xam nga ni bërigo douche bi leen di tànqale Pape la joon nga nag kenn mënuma woon di gérer man sama papa dafa nekkoon macha allah dafa nekkoon Air France di liggéey. Mm-hmm. sama rakk yi di voyager. Mm-hmm. ñëpp di voyager sama mag yeeg ñii dañuy dem ay vingt fois. Mm-hmm. ñii dañuy dem ay ay trente fois. yaa may dégg. mais man mosuñu nangu ma voyager. waay. mosuñu ko nangu parce que ñoom wax ni carrément ak buñ ko yóbboo. buñ ko yóbboo wóor buñ ko yóbbee sax mën nañ ko rey. mosuma dem ñoom ñëpp ñoo doon dem mais man du dem ñu ne wóorul. parce que naa la kenn mënu ma ku ma sol sa yére sax nga dama simmil parce que nangu moo nekk nit bi nit yi nekk beneen genre affaire laa woon quoi man beneen xeetu nit laa woon. ba ni ma di waxee ne leen dinaa tukki doole ma yóbbu ba ni may duggee ci musique bi may njëkk a voyagé bi may njëkk a dem Italie yor naa sama visa waxuma kenn dara ba 6 heures 6 heures ma doog wax ne damay tukki ne sama yaay damay dem tukki ma ne ma nga tukki ma ne ko visa bee waxoon naa ne naa dem te du ngeen may xubb. yow yàgg nga at d'accord alors sa yaay sa relation ak sa yaay. sama yaay dama ko lakkaloon da ngay doom nga lakkal ko mais da ngay am sa yaay boo xam ne day bëgg da day mel ni yow yaay caat fekk doo caat. fekk doo caat. doo waaw fekk caat quoi comprendre loo bëgg rek da loo bëgg rek yow moom moom bëgg na lool mais dama ko lakkaloon lool lool lool mm-hmm. ci ay bitis moom te mu ne sax moom ma ëmbee laa ko lakkal. kon kay yow mooy loolu kon kay garaaw. <laughs> nee na ëmbam ci ban la gën a sonn. ndeysaan. nee na mos na dem ci géej ci euh, benn nawet nii di dem di nduggi ndox yi amoon ci kii yooyu taa ndox yu bari yooyu. Mhm. mu daanu fa. Mhm. te fekk sama sama frère yi ma lay wax nii bi may nekk booy am deux ans trois ans. parce que mm. man ñëpp bi sama sama xale ñëpp ma bëggoon ñëpp ku nekk da nga daan bëgg foog ma. ku mm-hmm, mm-hmm. ci nekk. Mm-hmm. comprendre nga dem nañu yóbbuwaale yóbbu ma géej musaa Ndiaye nee na yóbbu na ma géej. oui mu yóbbee géej. dugg ci géej gi ànd ak man. vague yi ñëw. dóor ko ma réer ci géej gi. kenn gisatu ma. yow mii nii man nii. ñaata temps ba maa ngi am deux ans xamu trois ans gisatu kenn gisatu ma rek mu commencé yokku. dina ma jëlee dalaat ci tànk yi nii mu génne benn grand bu fa nekkoon fëgg ko mbéj. san. <laughs> am na xale yoo xamante ni noonu la ñu la ñu mel. macha allah ah, léegi nag bi defar boobu amee. Mhm. mooy defar bi ma lay wax nii ba yàlla nam mi kan ni man dama war a. Mhm. Euh, peut-être xam naa ni dama war a changer quoi dama war a nekk beneen. nga daal après nag. Mhm. Euh, ci la mam kumba toog nag jàpp suma self. concentré ci li nga xam ne mooy sa carrière musicale. Euh, non pas carrière mais mais nekk beneen nit quoi changer xam nga affaire yu bari yoo xamante ni bëggatuma ko. changer dal bàyyi xam nga. ba nga xëy décider dugg ci musique carrément. waaw après dugg ci musique te musique bi li ma ci dugalee foo la quoi man mosuma woon nangu pour def na def nekk musicien wala dara baat bi la ma yàlla mayoon. ma nekk ci groupe euh, ma nekkoon ak sama gars yi di di di di di rap rappeur laa ñu ko doon. maak laay ñes ak. Euh, ak euh, Maguette Ba ndeysaan. mais yow sa baat euh, du baatu rappeur de pas. si du du nopp maa daan soul quoi. ah ok maa daan soul en même temps dama daan hmm. nga. léegi laay ak euh, Maguette ñoo nekkoon bokk groupe maama nekkoon suñu maama aw nekkoon suñu manager ak ñoom Idi ñu amoon benn gars yi enca encadré ñu vraiment nicement quoi. ñoom Idi gars yi yoroon fa benn sonorisation fa lañ daan nekk ba foofu lañ suñu carrière. kon ñu màgget boobu lañ débuté carrière quoi. oui yeah, voilà. donc loolu moo waral après ma commencé nag di sool après groupe bi tas ma ànd ak sama benn xarit Ama Kayre ñuy euh, moom mannequin la woon ñu commencé maag moom di di di di di way way di way ba benn laa dem dama parce que dama tàmmaan saa bu bu ouverture foyer jotee dama amoon benn maquette boo xam ne dama daan yóbbu parce que ça fait euh, plaisir la woon quoi pour ma dem fekk benn euh, benn benn benn fosco ma ne gars yi dem bëgg a way. léegi mm-hmm. su ma nee dama bëgg way dañ ma naan doo way parce que kenn kenn kiiw la bokkoo ci liste bi te man du ma man boobu damay damay yor sama CD rek di wër comprendre mais su ma lijjantee lijjanti lijjanti ba gars yi ne ma waa Juel boo fayoon nit un million man su ma yéegee dañ naan lii amul ci àdduna <laughs> man man su ma nee takk micro bi ba yuuxu non sa xol mooy sedd lu may dox di yaa may dégg bu ma téye micro bi sa xol da ngay kontaan quoi noonu laa dajeek euh, benn xale bu jigéen Juliette Ichard ndeysaan euh, papam nekkoon na ci su Ndour euh, Souleya maman je sais nu mu fàtte ni mu tudd moo ma jël andi ma Prince Art te bi may woo bi may gis Lisa Delafosse mhm. ak ñoom vie fay sama gars yi nekkoon foofu may woy mhm. moom dafa dafa choqué wu quoi mu ne ma yow nan nga mën am genre baat bu mel nii. Mhm. tey jéem a ko exploité quoi ci la ma jël yóbbu ma mu ne ma dama lay yóbbu jolool yi ma ànd ak sama benn xarit pour man sax parce que li wax man man intéressé wu ma quoi. nekk woon ci mood boobu. waaw nekk ma ci kii boobu quoi mu mu vraiment mu kii ma euh, wax insister. aussi tamit boobu man maa ngi woon ci benn groupe de reggae ak i bulaan groupe bi gënoon mag Sénégal après dem newoon naa di jouer ak gars yooyu ak waa Tim Shell xam nga des fois ma nekk ci ñoom bëggoon reggae quoi mais aussi maîtriser reggae. xam nga ba ñu bari bi ma woyee après yenn way ni sax dañ ma xawoon mere tuuti parce que dañ waruma woon dugg ci affaire ay mbalax ci la ma Juliette yóbbu ci ci ci ci ci ci waa Jolooli boobu Jolooli moo amoon ma fekk leen fële nu mu tuddati ma fekk leen Almadi ma leen fekkee Almadi mu présenté ma gars yi ne leen dama bëggoon kii ngeen jël ngeen jël ko ñu waxtaan xam nga maa koy fàttaliku nii après buuba ci la ma ne woyal woyal nii ma woy xam nga ma woy nag gars yi affaire bi neex quoi ñu ne ma d'accord nañ la. loolu nag voix baa ngi fi ba pare. waaw voilà ma way nag affaire bi neex ñu ne ma grave nañ la contacté waat ma toog ay une semaine ñu waat ma après ma ñëw ak sama copain ma lay wax nii. ñu mhm. ñu commencé enregistré nag di enregistré pour génnee album album boo xamante ni euh, amoon na moment boobu benn kii bu amoon quoi benn euh, concours bu amoon Mali après ñun ñu jël ñu pour ñu représenter Sénégal. Mhm. concours boobu ñu ñoo ko gagné. ñu defal ñu vidéo par moom ci la voyagé. bi mu voyagé moo tax album boobu mujjul génn. kan moo voyagé. sama gaan bi ma lay wax. ok ok bi mu voyagé. après ma toog lu yàgg Medina nekkaat sama affaire ah, nekk samay business nekk samay euh, nekk ci reggae yi xam nga. Euh, après Ibou ne ma ñëwal dafa am benn bu la soxlaa quoi bi ma demee muy. Pape boobu jotoon nga dem ba def say preuve ba ñu xam ne kii mun na way. et tout waaw mm. ah, xam nga après ñu woo ma ba ñu woo ma pour ma def sëriñ Bambam. Théâtre Serigne moom ak ba man Babacar ak ak Pape Daly affaire bi def na ba sénégalais fa lañ ma fa lañ ma ràññee quoi Birahim siiw nag waaw rek nag ma siiw siiw boo xamante ni nag xoolal dara safuma ci nag ah. non parce que nee na xam nga wax naa la man li ma forcé li ma defar waaw siiw boo xamante ni man dara intéressé wu ma ci que siiw ma ñàkk siiw ak ñàkk siiw laa bokkoon yemale terew ma woon li may dund Serigne Mbam def naa ko nit yi di ma bégee de quelle sorte que tu peux même savoir hmm. te si j'ai envie euh, euh, pour pour pour dem fenn samay bus laay dugg wala sa dama daan dugg bus wala car rapide nan ma yow borom baat bu neex baa ngi ne yow yaa mën a woy ma dala woy merci beaucoup jàpp sama jeex na dara saf la ci woon. dara saf la ci woon dundoo woon maanaam. affaire star yee non non non man affaire star. li nga xam ne maam maam Koumba bi ma génnee euh, kii bi ma génnee album xam nga bi ñuy débuté maa ngi dama dama la wax fi ma jaar li ma forgé ak li ma defar ba tax na lu bari du ma mën a. du mu mën a jaaxal même bi ma génnee album en 2014 génne naa album en 2014 affaire bi gën a bi la yëngal adduna. ban la woon boobu. non album 2014 album From Medina. waaw waaw waaw. xam nga terewul génne naa ko mu ne ba mu ma continuer toog Medina ah, di toog ak sama xarit yi jàpp suma self. voilà nekk normal Pape Birahim bi ñëpp xamoon. c'est ça. Hmm. alors mais quand même noo dundee woon succès boobu. non non mooy li ma lay wax mooy que peut-être que ni la nit ñi yow xam nga lu gën a garaaw. Mhm. yow ngay xoolee nit ki. noo mhm. xamante ni moom xoolewu ko boppam. oui souvent gis nga man ko ma nit dañuy juum. Mhm. moom laay wax benn ne la nit ñi dañuy juum nit ñi dañuy bàkkaar nit ñi dañuy wax lu leen wóorul. dëgg mooy que ni da nga nekk artiste boo xamante ni génn nga yow euh, euh, tu as la les épaules tu vois. mais nit yi les gens yi nga xamante ni dañ lay gis de loin <laughs> ñoom ñu ngi lay te li ñu lay jugé xamuñu ci dara. li ñuy lay jugé xamuñu ci dara. Mhm. li ñuy dégg di ko nettali xamuñu ci dara maîtriser wuñ ko. xam nga ku génnee album 2014 album bi lakk dëkk bi lakk àdduna bi yëpp ma toog fi ma toog dëkk sama biir kër papa ak yaay. nekk mais loolu c'est c'est c'est le cours normal de. non de non déggoo lu ma la wax mais ngay gis ñu génne benn single bu tàkk sa dem uti benn appartement. ah bon mais du ah mais yow loolu de xam nga ko. ah man ma. nekk nag loolu la ñuy dund man dund mosuma dund loolu. parce que ki ñu wax ne dafa bëri titre ki naan dafa soof dafa laa man bi ma génnee sama album toog naa suñu kër 2014. mais yow buy wut titre ba hmm. ma doog a toxu. waaye léegi Pape bi mooy. feeling xam nga dafa feeling bu mu ngi nga feeling day dem ba day nuru titre alors que nit ki. nit ki xam nga la lay doxee. Hmm. nit ki buy dox yàlla lay doxee ak yonent bi mooy que ni li ma mës a intéressé mooy que ni heure waxtu julli jot mu dem julli. de maa ngi koy expliqué DJ Yves ne ko man nit bu ma waxaan dama la bëgg seet sax xam moo tax du ma sawar ci nit ki seet ma hmm. parce que doo xam sax nit ki ñaata temps lay def ci ci ci biir kër mooy que ni à tout moment damay dem jàpp damay julli damay wér hmm. Hmm. damay wér de quoi donc nag parfois da ça mal que nit ki toog may wér di day c'est si que da nga koy da ngay ignorer nit ki alors que non. Mm, fekk yow loolu loo tàmm la ci sa dund. voilà mm. nit ak ñaata nit yoo xam ne ñu mën a gis ci bi yaakaar ni kii c'est une personne boo xam nga xam nga extra extravagant yooyu kii non non c'est pas star bi def na ko kenn mënu ci dara. Mm-hmm. mooy que ni nit la boo xamante ni boo ma gisee alors que boo ñëwee Medina ba fekk ma da nga fekk nit boo xamante ni moom day julli rek. dëgg la ba yow sax da ngay def day gën a yokk sa mbëggeel quoi. Mm-hmm. mais ñu bari après dañuy jàpp gain dafa soof da nga koy yomb di ko nuyu du la faale alors que yooyu yëpp c'était des mensonges yoo xamante ni man souvent man xam nga am naa sama benn xarit Baara mu ngi Amérique mhm. damay tëj buntam imagine toi ki nga xam ne moom moom néegam bu duggee ma ne ko booy doo ma dimbali rek day toog di wax ma ne ko li ngay wax billaahi dégguma la doo ma dimbali nga génn parce que man actuellement damay bind. parfois nag dama daan def erreur mun na nekk erreur nag mooy que ni dama daan toog ci mbedd mi nii su ma toogee ci mbedd mi am envie bind am yenn affaire yu traversé sama sama sama sama bopp ma takk sama sama sama airpod te ñaari yi alors ci benn bi laay bindee mhm. nit mun di nuyoo doo ko dégg nga fay ko vite fait pour mën a concentré wu ci li nga nekkoon. Mhm. après dem ne diw romb naa ko di ko nuyu du la fay wala nit dafa mën a jaay alors alors que billaahi yàlla xam na ni. loolu ñuy wax yëpp. ay boo demee faalewul waa Médina wul laa ñu jël affaire yooyu wax yooyu di ko génnee dëkk bi moom ay artistes yu mag yoo xamante ne sax ay artistes yu mag lañu dañuy nekk feneen di véhiculer loolu alors que li ngay véhiculer du dëgg c'est pas vrai li ñuy wax dañuy fen. alors loolu mooy rumeur. alors loolu ak artistes ñoo ànd xam ñoo ànd. Mm. est-ce que mais xam nga rumeur dafa am rumeur yoo xamante ni soo koy dégg li ñu naan euh, da ngay bàyyi affaire yu bari da nga koy bàyyi ba moment bi nga xamante ni ci nga ko war a expliquer nga expliquer ko. comprendre nga. léegi ban mooy la ci gënoon a metti wala bii la ci gënoon a marqué parce que apparemment rumeur am na lu mu des si sa. non moom li lay li metti mais doo ko doo ko doo ko gaaw doo ci gaaw a expliquer quoi mooy que ni li ñuy véhiculer di ko wax nekkul maam Penda maam kii maam Kumba. Mm. li ñuy li ñuy véhiculer du dëgg. ka diw dafa laa diw dafa laa li da koy laaj da may laaj ñi nga xamante man ñoom laay nekkal ñoom lay fekkante. maanaam fuuyoo woon beewoo woon. yooyu yëpp nekk ko fa woon. dañ la ko doon taxal man taalibe laa maam mm. euh, euh, Kumba boo nekkee nee boo jaaree fu bari aussi jàng alxuraan nekk taalibe est-ce nga mën a incarner ci ay affaire dof. non man sa pour amoon ay xaritu artiste sax problème la. aw ma ko sax woon aw ma woon dugg ma génn génn man. alors ban mooy rumeur bi la gën a naqari. non la man dama naan je me dis que parfois sama àdduna dara du ma metti parce que lu ñëw rek parfois mënu doon ngëneel. mun na nekk loo xamante ni lu baax ci yow la parce que ëllëg nettali bi moo tax moo tax li ñu ci doon wax yëpp damay bàyyi mu sedd parce que musuma génn moo tax ma ne la 2014 euh, ba deux ba 2024 may doog a expliquer loolu xam nga loolu ça fait maintenant dix ans. oui mosuma nangu dem ci plateau di di di di di di wax ni euh, damay dama euh, dama war a wax ni expliquer ni ci que li ñuy wax ak man du dëgg parce que man je m'en foutais ah. lu nit di wax ak lu nit di yow loolu sa problème la yow. yow yaa am problème ba tax ngay calculer nit ki wala di wax ci moom lu bon wala di bàkkaar te li ngay wax bàkkaar te wóoru la mhm. comprendre nga ma koy dund di ko accepter te aussi loolu dama lay benn affaire man sama xarit yi ma doon àndal am na ci ñoo xamante ni c'était des c'était des gens yoo xamante ni incompréhensifs ñoo xamante ni mun naa ne ñoom daan nañu véhiculer ay wax yoo xamante da ngay nekk te da ngay nekk ak ñoom te ñoom te ñoom te li du gën a bizarre mooy ñoom ngay nekkal ñoom ngay nekkal peut-être que booy nekk ak ñoom di nekk ak ñeneen ci biir ci biir kóonu bi jalousie mu ngi am quoi. wala bu dem jotee nga ànd ak ñi ñi mer nga ànd ak ñi ñi mer comprendre nga. ñu dem ci biir ku ñeen ñi def ay yëfu dof xam nga ñi jékki-jékki buudee. après voilà quoi buudee nekk ci dëkk bi nag ñoom seen bopp ñu ci bari man da da bonuñu duñu ay ñu ci bon mais parfois euh, seytaane dafa garaaw dafa bari doole. moo tax booy ànd ak nit bu siw bu yàlla may tur dafa am nooy ànd ak moom mooy que ni yow bul xool tur bi ko yàlla may bul faale loolu yow xoolal nit bi nga xamante ni yéen ñaar yéen a doon nekk naturellement ba dara du woon dara. Hmm. alors siw siw lu mu la defal ak lu mu la yàqal. non non man siw moom euh, am na opportunité yu bari yoo xamante ni Mame Coumba daf la koy may ci sa ci ci sa life ci côté nag bu positif. Hmm. mais noonu noonu la siw mu na yàq laay fu nit. si seconde. ak a garaaw ci mun na mun na am yenn succès yu garaaw yi nga jékki-jékki succès bi jékki-jékki mu basculé wu xam nga boo nekkul nit dëgg wala nga saxoo jaamu yàlla wala nga am éducation de base mooy que ni di nga nekk leneen moo tax parfois su ma gisee xale buy way dina apprécier li ngay way neex na nit ña ngi lay apprécier mais. c'est pour un temps bien déterminé. dama lay yërëm. parce que yaa ngi dugg ci loo xamul xam na loolu <laughs> nee naa la xam nga parfois da ngay dañ la war a forger ba pare ci dara aussi defaru yàlla ak defaru nii nii bokkul mm-hmm. yaa ngi dégg des fois circulation bi xat ak ay oto ñi nga bu circulation bi xate xatee ñëppay taxaw des fois oto bu bon sax jiitu la ci biir circulation ba pare nag teg ci di la xëppaale ay ay ay euh, air bu bon bi de nga koy nooy mais bu ngeen demee ba génn circulation dinañ xam ban oto moo baax. dëgg la alors yow actuellement dafa mel ci stade boobu nga toll dans ta vie. non non mooy moment bi nga xam da ngay da ngay da ngay da ngay kii mam mam Kumba da way affaire bi dem benn moment boo xamante ni moo am break break bi ñëpp teg nañ ci seen bët mooy que ni Pape Birahim amoon na benn moment boo xamante ni. kenn gisatu ko voilà kenn gisatu ko kenn déggatu ko. d'accord léegi balaa ñuy yegg ci kenn gisatu ko kenn déggatu ko. sa nekkin woon biir presse aar parce mhm. que après da nga dem. Mhm. waaw après dama bàyyi dem bàyyi dem bàyyi dem bu banaal quoi mooy bàyyi dem jékki-jékki comme si que. c'est-à-dire ngay da ngay buddee da ngay mer ci loo xam ne kenn deful dara mun naa ne yee parce que dañu dañu defar album 2014 euh, war a génne album 2018. Hmm. defar ko ba album bi pare ba album bi saf sàpp ñu war ko génne ba génnee lancé euh, Thiès Thiès dañ ko lancé pour génne album bi. Hmm. ma jékki-jékki affaire bi tombé euh, corona. man daal benn jour laa jël sama téléphone di woo Ibou jotuma ko rek rek ma benn appel boobu bu ma woo nit ki jotuma ko ma mer. ngay gis sa bopp ma gis sama bopp. xam nga koy woo ay ati ati ati ati at nga woo ko benn jour euh, jëlul ma mer ma woo ma ne ma ngóone ne dañuy tourné dangay tourné benn benn vidéo vendredi ma ne ko ma ne ko tourné wu ma ñëw ma. mu ne ma ah man ngóone moom wax ma ne ko lu sama yoon. boobu da ngaa yegg succès. non non pas doo dégg boobu xa dox xam nga man dama bëgg bu ñuy waxtaan non non yow boobu yow ku génne album bay xaaral beneen album mooy que ne yow yaa ngi bëgg confirmer foofu succès amu fa yow confirmation nga war a def mais succès yëg sa bopp bi ba nga yaakaar ne oui c'est fini quoi moom na maintenant voilà besoin de euh, euh, di di di woo Ibou wala may woo Ngoné derrière Ah, nit bu nit bu sonn ci album liggéey ko ba album bi war a génn nga war a génne sa album. pour def confirmation. nga jékki-jékki bu réew bàyyi mooy que ni woo naa diw. jot juluma ko bàyyi na est-ce que yaa doo ko tay doo ko tay moom man xam nga je te dis fi ma jaar yëpp. oui que naa de man si affaire dof-dof la affaire golo-golo yi nii comme ça ni ci def man lu ma ko def mooy toog di yërëm yërëmtaloog toog di kii nii comme ça non <laughs> yàlla sàkkewu ma noonu. lépp lu ñëw rek dama ci ànd ak gëm yàlla ànd ci ak dal bu bugguma tey bugguma woon dund yenn affaire yoo xam ne damay dem ci télé yi parce que bu la yàlla defee champion da nga xam ne champion nga mooy que ni sa yoon bu waree metti dafay metti ala xaal su waree baax dafay baax mais euh, euh, muñ dafa baax ci doomu aadama mooy parfois affaire bi jaxasoo nga toog nga muñ comprendre nga t'as pas besoin de dem naan dañ ma marabouté dañ ma laa léegi nag sénégalais bu ñu waxtaanee ñoom ñooy xam ñoom ñoo war a euh, dagg ci affaire bi. am conscience xool. xam ñoom neen la woon wala ñoom ñooy xam mais gëm nga maraboutage. non bu baax a baax a baax dégg nga ma ne la ñoom ñoo war xool que ni kii li muy expliqué yéen ngeen dagg ngeen daggatil ko seen bopp mais pour toog naan ay non kii daf ma defoon lii wala dama dem benn sàmm non non non man néew ma ci yooyu. dund dund naa lu métti yooyu. ba ba d'accord mais mais am na noo koy expliquer ñun duñ comprendre parce que là là dafa jaxasoo. non parce que moi je comprends pas dafa jaxasoo sama bopp bi lan mooy woon problème bi exactement. parce que gëm nga ne nga ne gëm nga ne du woon loo xam ne loo tay la. Mhm. li nga doon def noonu parce que mënoo préparer sa album mu war a génn après nga buddee. Mhm. mu yàqal la sa album. non mooy li ma la expliqué nii dégg nga mën na la. mu jékki ji xam dama lay yow da bëgg ma ma wax la lépp. Ah, mais dama lay wax lépp mais li ma lay wax laa dégg ma ne la bëgguma ko waxee nii. comme toog di wax ay non dañ ma def lii def laa ma nekkuma ci yooyu. léegi mën na la koy expliquer temp ma comprendre. waaw léegi nit yi étape léegi nit yi ñoom ñooy conscient. waaw léegi après ñu xool ñun ñooy apprécier après. nga xool. mooy mhm. que ni dama def 2018 album album bi war a génn album boo xamante ni macha allah bokkul sax ak fa album From Medina da koy boot di daw. Hmm. comprendre nga jékki-jékki ñu woo la nga ne ñëw ma te taguloo ko fen mm-hmm. ma toog jàpp sama ñàmbur ngoone woo ma wax ba sonn ngoone du neexal kenn ngoone mm-hmm. yàlla may na ko personalité ak ak fulla ak boo xamante ni xam boppam xam mooy kan aussi bari diina lool mun naa ko seede mm-hmm. ngoone di ma woo Pa Birahim lan mooy sa problème ma ne ko xaw ma de xaw ma luy sama problème de <laughs> ñëwuma daal <laughs> comme ça nii. mais lan la ma ne ko non ñëw ma waxal Ibou mu woo ma su ma woolee sama tànk du fa tegu. Ibou tam amu fa laam toog. non Ibou ne man Paa Birame lan ko def bu mu war a ay affaire woo ma ay kii nii comme ça Ibou tam jàpp ñàmburam. ngoone pare Abi woo ma ndeysaan Abi nit ku baax. Mm. Abi Ndour. ndeysaan. nit ku xolam rafetee noonu amul ci. Mm. nit bu elle est vraiment vraiment généreuse. mën a lijjanti loo xamante ni abi ah day faj day faj day faj ay nit yu feebar sax te kenn du ko yëg. comprendre nga abi woo ma Pa Birahim ah la mooy sa problème sa album danga mën ma ne ko abi génneew ma. Mhm. génneew ma mhm. demuma. te man xam naa ni en âme et conscience li may def noonu c'est c'était bizarre quoi. c'était pas logique en fait. c'était pas logique. waaw comprendre nga. noonu ngóone après bàyyi quoi mu sedd parce que. te boobu mooy deuxième fois man mos naa bàyyi boo xamante ni bàyyi njëkk naa bàyyi te bàyyi boobu dama comme dama bàyyi ba mu def ay ay ay une semaine deux semaines si bi ko njëkk a publier daf ko publier rek te jour boobu la moom jour ko publier jour boobu la ma la la la la laa dem waxtaan ak Ngone. te Ngone elle m'a appelé encore ne man Pape Ibrahima lan la ma ne ko ma ne ko dara la moo tax su ma maa ñëwul waa ñëwul ñu waxtaan ma ne ko waaye dinaa ñëw kañ ngay ñëw ma ne ko dinaa la wax. man Pape Ibrahima xam nga man du ma neexal kenn mais yow dama lay woo yow man dinaa la di waxtaan ak yow sax parce que yow xam nga nii nag na lay la là là ndeysaan mu nekk nit ko ma bëgg quoi. ma amoon estime lool ci yow loolu. ngoone mun naa ne képp kuy woy ci àdduna te micro yàlla moo dogal loolu. xool mm. la bëgg ci xolam. ndeysaan dafay am mais ñëpp la boole jaboote di def ci ñoom lu baax. Mm-hmm. jour bi ma wooyee après ma ne d' accord dinaa ñëw ñu toog man moom ak ak Ibou première bàyyi te Sénégal kenn ñu la sa bàyyi day yombee nii jekk saay rek fay dem sa yoon. loolu la bàyyi. succès bi la woon. mu la bàyyi waxu succès. la. natt sa bopp. non pas natt natt sa ci ay nit yu la bëgg. mënuloo natt sa ci say ci say. frères et sa bopp biir biir presse aar di xool la toppalee ma ñoom ay bopp ak yooyu. damay def ay xam nga. léegi yow moo jàpp lan nga jàpp ne moo taxoon nga doon def. genre affaire yu bizarre yooyu mais xamuma doo dégg. ngoone na ma yow ah ah yaa ngi préparé benn affaire nii comme ça album baa ngi nii nga dugg na fi génn fi expliqué ndeysaan ne ma fi yow Prince Art yow yaa ko moom xam nga loolu dafa neex. mooy que ni ñoom samay frère lañ samay sœur samay lépp lañ neexal pour nga régler nekk nit. mais dama xamoon lu ma doon ba ñàkk ba ñàkk la woon nekk nit ma jékki-jékki noonu album bi France. te aussi ma am ay jaar-jaar yu garaaw. comme man dem na dem nañu Zénith. waaw juróom la ngoone mer. dem naa Zénith c'était man Pape Diouf euh, Alioune Mbaye Nder Titi ñoom Aby Ndour. Mhm. nga mais man sama passage bi muy jotee. Hmm. jour bi jour dugg Zénith. waaw non ngoone da doon xëccanteeg xale yu jigéen ñi ñu naan du ma dugg ñii di xëcc di laa ngoone di xëccanteeg ñoom ci porte bi ba mu dugg. mais jur bi may way kenn xamul baaful yi la moo ci nekk Macoumba baaful yi di def ay booy bruit boo xamante ni. di dëng dëng noo ay gërëng gërëng gërëng gërëng xoolal. si jinne yi la. mais ngoon a si jinne yi la ñoo fa dugg. man dama man dama ba léegi sama passage laa lay wax de man damay wax rek damay expliquer nit yi nee la ñoom ñooy après ñoom ñooy def seen analyse. waaw comprendre nga. mais wax ko ak simplicité nag Pape yow lan la. déggu simplicité wax ko ak laa koy waxee. ah nañ dem. comprendre nga. maam mm. ko affaire bi di def ay baafali def noo xamante ni. lu kenn xamul. lu may woy lan la. Mm-hmm. ñu demati Bercy déjà Bercy benn sens nit ñi may ñu may ñu may wër fan laa nekk man boobu nit ñi may wër man maa wëri fu ma julli jege. Mm-hmm. gars yi di ma wër ci ci colis euh, Bercy. Mm-hmm. ndeysaan Bouga Ndiaye sama sama cousin bi gaañu ndeysaan moom laa na àndal fépp Bercy maa ngi moom ñoo àndoon. moom moo mujj wëri wëri ba fekk ma ci benn kii may julli mu ne ma nit ñaa ngi lay seet njaay ndeysaan loolu la ko daan waxee nga nekk ndekk tey yaa ngi fii di julli ma ko gee laa doon julli bëgg moo gee fekk ma ci kaw may kii quoi xam nga gis nga Bercy bi ñu ma annoncé dañu annoncé Pape Birahim nit ci di yuuxu may dugg ba teg sama tànk war a way nga dégg wooy ndaantaan <laughs> ndaantaan bu dee <laughs> xaw la la nonguloo nonguloo mhm. de moo doon daw maanaam au lieu sa son ñëw. nangaloo moo doon ñu juum teg beneen son. ma génnaat ñëwaat ma dugg ñu tegaat nangaloo. mais ndaanaan nga mënoon nga ñëw rek topp ci. ah non ah mooy jàmm ci topp <laughs> toppoo <laughs> ko. tegal la ndaanaan. ci seenu biir yow da nga neex quoi ci seenu si kay. te ndaanaan nga lépp ci passage bi ma lay wax. ma toog benn moment boo xamante ni une semaine yoo xam damay yuqoon. Hmm? yuy xool pendant une semaine. yu xool une ku yuy xool moom du waay. te kenn xamul ni suñu biir kër des fois am yu may dal yoo xamante ni ñoom duñ ko xam damay noppi ma yu xool Moussa Ngom su ma daan enregistré këram moment boobu lu ma lu ma lekk sax day génnaat parce que yu xool baaxul. waaw ku yu xool moom du waay. voilà baatu boobu dañoo téye baat bi am kenn non non man yaay wax rek. damay laaj mais yow yaay wax. man damay laaj ci di. ma yow ah, yaay wax damay dégg yooyu. ci yéen sama jaar jaar yéen yéen artistes yi. dinaa ñëwaat ci yow ne la. maam maam maam ma sama jaar-jaar laa lay expliquer après nit yi ñoom ñooy xool. waaw ko léegi man damay damay damay damay damay def sama appréciation. Mhm. je pose en même temps des questions. Mhm. dama ne mbaadu boobu dafa fekkoon ñu ñu waa ñuy waaj a téye baat bi. en tout cas dama daan jouer Just for You chaque mais bu lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi. damay lundi mardi ba samedi lundi mardi ba samedi damay wax normal mais su ma xëyee dimanche sa mbaat day dee. Ah. parce que waaw sama sama sama fan si daan ñëw ci man ñëpp war a defoon remarque su ma en tout su ma paree damay wax ak yow normal damay woy normal mais saa bu heure bu ma jotee damay sama ba day dee naa jës fa yow joué ba pare ba soirée bi tas ma jékki-jékki mënatuma taxaw dal laa def ci suuf. mais est-ce que du woon ay coono yu bëri yu accumulé woon. non non non coono ak ak ak ak ak ak yi ba léegi. yaay wax ay yow yaay yow yaay expliqué rek. ay bizarreries yooyu. comprendre nga mm. ay affaire yu bizarre quoi am parfois am na affaire yoo xamante ne day bizarre. oui benn instant bëggatuma dara. bëggatuma dara sax si musique bi ba ba ma waxee am nga prestation wala am sax damay énervé quoi mais amul foo di tooj genre oh, ah, ba ñu def Thiès waaw Thiès fa la fekk Pa Assane man xaw ma loolu foo ko yëgee Pa Assane Seck non Pa Assane jour dañuy def dañuy clip euh, Thiès waaw bi ñuy clip Thiès da nga jël lamp ne tël teg te kenn du ko laal beneen jékki-jékki ñu doxaat beneen lamp ne tël Pa Assane na mais mais lii c'est bizarre ah <laughs> mais du courant bi moo ci bëri woon rek non <laughs> damay laaj. beneen moment bi gënaat bu compliqué bi bi album bi waree génn. ñu war a photo wu pour def ba préparer euh, kii bi euh, jagatu euh, pochette bi photo bu ñu photo du baax ak man nu ma naay see macha allah. am na photo photogénique. am na loolu toppoon non lu ñu photo du baax. bu jékki-jékki nu muy non mais lii c'est pas possible. photo bu ñu photo photo bu du baax mujj gi ma loolu si xam moo andi sama woto ma ma ma woto parce que sa cas maa ngi def dégradé. waay ma jéggi sama bopp bi du ruus. Ibu jékki-jékki dama Ibu dafa neex Ibu dafa neex yow Pape Birahim bi laa jàpp ne la yow munoo photo wu lu baax. maanaam jamono boobu daal loo def du dox. loo def du baax. Mhm. loo def rek bu baax. léegi moo tax ma ne la moment boobu bu fekkoon kay damay nekk nit boo xamante ni damay jooy dem naa ci télé yeeg rajo ni ko ci di defee mais man loolu duma ko def jamais. déedéet balaa nit ñi di dem di jooy dinañ toog def benn temps de kii toogaat xool xam ne vraiment lii c'était pas un truc naturel. non mënu ma war a génnee sama album ñu woo ma ma ne dew ma. ma guddee ñaata album ñaata ñaata artiste nga gis ñii ñii di jooy. ñi di expliqué ñi di yërëm tur dama lay expliqué ñaata ngay gis ñaata ñaata ngay gis jaar jaar dañuy toog di expliqué di laa ça dépend ça dépend ci nit ku nekk ak ni ngay jëlee affaire yi duma ko def yow mën nga contrôler say émotion mais peut ko ci ci moment bu tar sax après nga dem toog bàyyi non après ma dem toog rek na ñaan da ngay euh, il faut reculer pour mieux sauter quoi tu vois ma ma toog quoi ak jaxas-jaxas bi ma amee sax sama xarit yi mu doon lu ma metti nag quoi xam nga metti la mu am nekk ci biir ñoo xamante ni ay nit yu la bëgg lañu quoi yu yu yu man man man samay sama dafa am sama xarit yoo xam ne bu ñu bëgg dañu ma bëgg bëggu xol. Mm-hmm. bëgg boo xamante ni day garaaw daal comprendre nga. te aussi gis nga li gën a garaaw mooy que ni nit booy àndal mu jékki-jékki àndatu leen wala nekkatu leen muy góor ka muy jigéen gis nga noon boobu ennemi boobu mooy gën a mooy gën a dangereux parce que li muy téye. tey benn maam kumba mun na nekk mun na nekk ci ci suuf si du la bëgg sax naturellement mu jékki-jékki nga def benn fraction seconde affaire bu ndaw mu bëgg la mais ki nga xam da nga doon nekk ak moom nga dem ba affaire bi peut-être que euh, mu mu bàyyi la wala nga bàyyi ko. mu doon affaire bu ci bi. voilà day àndatoo leen waaw voilà ak dégg nga ma ne mën na bu doonee muy góor ka muy jigéen. kooku lu muy bëgg ci yow mooy sa defet kese. kooku aussi tamit mooy yóbbu ay wax yoo xamante ni wax yooyu yëpp nee naa maam ku man man li ma nit di waxal yëpp yàlla yàlla na lépp lu ma nit génn waxal ma ko ak koo mën a doon li ngay wax noonu dangay fen fen la man je le dis à haute voix que ni nañu bàyyi gor yu ñuy yàq nañu bàyyi gor yu ñuy waxal loo xamante ni nekkul. wallaahi dañuy gis sax ci ci ci ci ci internet boo xam nit boo xam ne daf lay enal mais commentaire la commentaire boo xamante ni mais est <laughs> boobu da koy layoo ak yàlla dëgg la damaa demee li mu mën a layoo ak yàlla dafa bari am na loo xamante ni bés boo ko xasee bu waxal ko nit muy law yow ba moytul kii bu la baalulee àjjana barke alxuraanu karim doo fa doo ko jege sax dëgg la seen foo ko la yow di la bind affaire di n'importe quoi mais nga nekk ku rek parce que doomu aadama aussi ngay hmm. <laughs> am na ñu koy waxal lu ne donc da ngay dëgër te lu la waay def rek nga bàyyi kook yàlla parce que nee naa la yàlla day maye. donc yàlla day maye de am na ñoo xamante ni yàlla may na leen ñu mën la duma de. te mun nañu nekk ay waykat. te billaahi wallaahi watallaahi bés bu ñu téye seen kurus def lañ ciy def gis nga buñ la yóbbu hôpital ak fu ñu la mën a yóbbu. kenn du gi non non dama dama yaa ngi déglu ma rek. gis nga fu ñu la mën ci yóbbu ci àdduna. ak ci sëriñ buñ la mën ci yóbbu. ak fu la mënti yóbbu li la dal kenn du ko gis. dëgg la tant que ñoom jëguñu décision pour dindi ko. ndax am na ñoo xamante ni jàng nañ jàng nañ fa ay secret jàng nañ fa lu bari. Pape nag yaa ngi menacé waate. non man waxuma la ba léegi man newuma la man dama la wax ni nañu mayti nit yoo xamante ni bés boo leen defee li nga leen warul li boo leen defee loo leen warul def. wala nga merloo leen bu ñu xëy bu ñu bu ñu la xëyalee trois heures du matin di ngay yëg loo xamante ni foo dem kenn du la faj. Hmm. te yow da nga tooñ. yow da nga tooñ. dëgg la dëgg la Pape nañ ma nañ moytu. Pape mu nekk transition dans ta vie en fait benn moment. Pape Birahim macha allah ñëpp di ko béggee xam nga mu jëkki saay loolu amatul. Mhm. nan ko doon dundee wala noo ko noo ko noo ko surmonter en fait. maanaam gëm yàlla nga koy dundee. ak gëm yàlla ak aussi da tu te dis Euh, nit yi yow da ngay wax à tout moment da nga naan nit ñi dañ la bëgg quoi yow comme nit yi dañ la bëgg loolu rek doy na doy sant yàlla ko mooy que ni aussi dañ lay xaar quoi gis nga am na artistes yoo xamante ne boo leen gis rek da nga leen di laajte waaye yow kii anamu parce que c'est parce que. comme man dama jig seen waaye waaye Pape Birahim moom fu mu nag xam lan mooy lan mooy lan mooy def loolu talent moo koy def. mooy que da nga naan kii dafa war a am dara ci musique mais am na ñoo xam ne boo toogoon gisoo leen téeméeri at doo leen sax faale parce que amuñu talent. ak ñoom yàlla moo def ci ñoom talent te ñoom ñooy porter musique sénégalaise ci kàttanu yàlla te kenn du ci mën dara am na ni dañuy dem te nag dem bi ñuy dem dañ leen di ñaanal yàlla ñu am ci li ñu bëgg defar ci seen bopp defar ci seen i mais am na ñoo xamante ni dañuy dem mais dañuy taxaw parce que da ngay taxaw amuloo talent pour dem dafa am ñuy dem ak ñu dul dem. ah est-ce que loolu moo ñoo xamante ne da dem ba ci biir nga am benn gàllankoor. ah yow gàllankoor la. waaw man gàllankoor la mais man sama man sama dem man sama dem ci kàttanu yàlla dafa leer ñëpp. gàllankoor la woon peut-être que bi ko yàlla bëggee dindi. te gàllankoor bi du woon lu naturel. non non vraiment man c'était mooy li ma la c'était bizarre. moo tax ma ne la sànq ba léegi saa boo ñëwee foofu ma ne la maam Kumba bëgguma toog naan ba ma toogee lii lañ ma def lii la man moo tax ma ne la man je préfère je préfère expliquer instant boobu sa état d'esprit lan la woon noo ko noo ko doon xalaatee tranquille rek tranquille rek tranquille toog jàpp suma self maa ngi nii producteurs yi nekk ci Sénégal yi bari na ñu nekk ñu am talent di def lu neex mosuma ci dem ci kenn ne la carrément jàppale ma wala dem nga génneel ma lii parce que nekkuma ci yooyu parce que nee naa la doomu aadama li yàlla li la yàlla may da ko a xam man li ma li ma yàlla may du ma ko pasar pasaree wala fii am na benn problème xaaral ma dem fële ngi non man sama talent may ma loolu ko man sama talent du ma baal dama war a toog ba gàllankoor ñëw ma toog am dignité am fullaak fayda gàllankoor bi dañ ma continuer suma chemin mais pas loo xamante ni dafay kii ni nga moo tax ma ne la musique wax naa la juñ naa la ko léegi bu ma gisee ku ci nekk dama lay yërëm parce que xam naa succès nga am ko nga jékki-jékki succès bi dañ boo moytuwul mën nga dof mën nga nekk tuxkatu yàmba mën nga nekk nankatu sàngara maara day taal yi mën nga nekk koo xamante da nga koy nit ñi mhm. mais man mosuma jiiñ nit kenn leen man nee li ma intéresse sama àdduna mais maam ku ma wax naa li ma intéresse mooy jaamu yàlla man naa julli loolu mooy seddal sama xol loolu moo ma loolu moo ma sauvé li ma li ma sauvé sama life mooy que ni gëm yàlla bi gëm yàlla am iman ba pare am dal di gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. li nga xamante ni man moo ma defaral lu bari ba tax fu la nit ci gisee rek bëgg la fu la nit ñi gisee rek dañ lay bëgg hmm. ak yi may gaan yow mais fan nga nekk léegi may yow lan moo tax lii mais yow yow la ñuy xaar mais parfois tu vois que ni y a des yoo xam ne dañu xaw a mer. man nag benn instant je pensais que Pape Birahim dafa gisul woon boppam ci biir Prince Art. wala succès bi bari na mais xaalis bi nekku fii. mu dem mu dem feneen c'était comment man moom man j'étais bien ak Prince Art quoi man moom bu ma waxee yàlla j'étais vraiment bien quoi. xam nga non maa ngi doon sant yàlla bu baax a baax a baax a baax xam nga musuma fa am problème présent musuma fa am problème. yaa fa indiloon sa bopp problème. <laughs> xaw ma problème bi jógee. yow yaa jékki saa rek créer fa xaw ma problème bu mu jógee d'autant mm-hmm. donc. Euh, ku nekk tamit da bëgg xëccoo bi day kii nag. ku nekk ku nekk da ngay bëgg da ngay nekk nekk devant da ngay bëgg aussi nit ci di la kii donc voilà kenn ki sang kenn ñoom sangoo bu foor boo xam ne dafay kii keneen. lu ne mën na xew. wala loolu ay nit yu daje lu ne mën na xew. Hmm. xam nga man j'ai pas froid ba ma laajee li ma la war a tontu dama lay tontu àdduna bu ngeen di daje fenn lu ne mun na xew. waaw mais je préfère man daal. en tant que. nga naay sax waaw en tant que jullit. nekk musulman pas eh, nga naay sal ak nga lii man moo mel ne di naay sal ah, di ni nga léegi xam nga ne lu bizarre la woon boo déggee li ma lay wax lu bizarre loolu si si si yàlla yàlla danaan xusu xam nga lan mooy xusu xisarakum mooy lan jël leen seen koy wax nee naa la man bi may génn nit ñaan mii kii ni ko nit ñi bëggee ni ñu ko bëggee laa te laalu ma biteel sax man lu naturel la naalu ma biteel takku ma ma dégg lu ma la wax de daaw xëy di diw dama génn nit yi xam nga dafa naa nga jékki-jékki ku xamul sax mu naan la noo kii non bayre bee ko dese fekk ba yow li ngay wax noonu yow maa ngi génn nga may béggee say mbokk di ma béggee adduna bi di nga gis nit ñi di ma béggee après nga bëgg waxu bayre man bi may nekk dugg ci affaire bi di génn nit yi di ma bëgg laalu ma bayre c'était quelque chose de naturel mm-hmm. donc ci sama ci en tout cas aussi tamit di wax ni sama àdduna ak fépp muy mën a dajek ay nit bokk ñoom dara nee naa moom ci kattanu yàlla te dama koy ñaan yàlla te parce que xam naa ne am. man sama sama mun naa ne sama sama sama euh, li yàlla def ci man mayu ma def nit dara su ma ko defee li nekk ci man day dañ. dëgg la et te aussi voilà du ma toog ci kenn la carrément kii laa bëgg comme ni ko defee nekk seen kaw nekk seen non non non jaru ko quoi ku nekk sa wërsëg rek. ngay jël dëgg bu ñu xamee bu ñu ko xamee woon noonu lépp ñëpp dinañ dem kenn du kenn parce que des fois dañuy xeex ba fay ñoom ñëpp ba fay seen bopp ñoom ñëpp. ndax booy xeex nit bu mujjee yaale moom problème la. des fois di ngeen xeexante ba fayante yéen ñëpp après ngeen dem toog yéen. absolument gis nga bees bi li tax ñu neex ma gis naa benn affaire bu def. Hmm. gis nga leen dañuy demlante dañuy nekkante seen biir dañuy laa kenn day génne dara ñoom ñëpp jël ko snap ko. parce que l'union l'union c'est l'union qui fait la force. non on est nekkuñu ci muudu xëccante yooyu noonu. léegi gisoo ni muy neexee seen biir. waaw day neex jàppalante la. mais bu fekkee yaa ngi toog ku nekk di jéem a xool noo jël sa morom dës ko wala nag ne kii di la dës kii di la dës kii di la dës ah, ngeen dafa bëri woon na wax da ngay dem benn succès bi dafa foor man succès bi ma yàlla mayoon booy dafa jéggi dayo de la yow hmm. yow mënoo ko sax comprendre yàlla xam na loolu moo tax su ma moon su ma doon fekkee damay doxee damay doxee grosse tête kon heure bi heure bi kon man man pare naa kon lu tax sa yenn xarit yi demoon bàyyi la non non yooyu yëpp yëpp yëpp kenn xamul mu demee kenn xamul sax te ñoo xamante ni xarit yoo xamante ni defoo ci nit waxoo ci nit leboo ci nit xaalis nanguwuloo gelu jàmbur toogoo di jëw nit toogoo di xas nit. demoo xeeb leen. ma voilà di nekk ak ñoom mais loolu ñoom lan moo leen war a defloo ay yëfu dof ay waxante dëgg. alors après succès bi ndax ñoom ñëwaat nañ. non après c'est mënul am na parfois am na yoo xamante ni am na ñoo xamante ni. yàlla daleen leen di boolewaat ngeen nekkaat bu ngeen waxtaanee mooy li ma la wax nit mun na bañ a bon mais peut-être que. incompréhension day dox seen diggante ñàkk xam ak incompréhension moo leen di war mooy waral loolu. Mm-hmm. mais am na ñoo xamante ni man dama leen di bàyyi ba yow ma xiyam pour mu leer. Mm-hmm. doo àdduna tex ñu. non non am na ñoo xamante ni ba yow ma xiyam laa leen di bàyyi. pourquoi lu ñu non mais parce que c'est normal. dafa am nit yoo yu yàlla sàkk nga mën a def ak ñoom. Mm-hmm. ak ñoo xamante ni mënuloo def ak ñoom. yàlla ba gis nga yonente ba mënul ba mu mënatulee def ak yéeféer yàlla dafa wàccee xul yaayul kaafiruuna ku nekk rek nekkal ci sa li li nga nekk hmm. lakum diinukum waliya diin nit hmm. nag mun ngeen nekk ci benn moment boo xamante ni papa yaay sax dañuy di jotee yaabay ak doom ak papa mais bu fekkee euh, vous êtes vraiment conscient di ngeen waxtaanaat ngeen xool nu ngeen nekkee après ku nekk jégal sa morom mais am na ñoo xamante ni non man ay nit la ñoo xam dama leen di gas suul leen waaw teg teg seen kaw nga doj <laughs> alors ñu gisaat ni da yaa ngi duggaat Prince Art wala yaa ngi ci yoon bi wala ñoom ñoo la woowaat wala yaa yaa fayoon yaa ñëw taalaat sa bopp wala ñoom ñoo la fayal. <laughs> loolu ci dama neex waaw mais is xam li gën a andi. ndeysaan li gënoon andi fii lu tàkk fay. ah maanaam non maanaam fay bi yow da nga jëm ba siwatoo non yooyu kiiwul. mais yow yaa jékki saa nga fay nga budee nga dem. maa budee man de waaw dëgg e la de. non sëy bi yow yaa xëy rek. su ma nee maa fay la. non su ma da ngay da ngay dem. mais su ma maa fay sama bopp c'est comme si que sax maa def exprès dem sama yoon nee naa la li andi fay bi dafa mel ni tey ay bagages la mel ñuy seetaan télé ñun ñëpp ñuy seetaan déglu ma dafa mel ni ñuy seetaan léegi xaaral ma jox la benn benn benn ma junj la benn affaire dafa mel ni am ko aw ci ginnaaw bés 10 heures bi courant bi coupé. après nag ñu toog ñëpp di xaar mu tàkk. ok te naa li andi euh, réconciliation réconciliation bi macha allah bi sama papa gaañoo ñoom mun naa ne ñoom bi ñu bi ñu jugee fële ñi fa jiitu ñoom ci lañ bokk. ah jotewu leen dara. waaw de moom laa lay wax nii déglu ma rek yàlla bu bëggee defar kenn mënu ci dara. paa bi gaañu ñun ñëpp ñu ñëw ñoom abi ngóone ibu ndeysaan euh, Khadija sa dafa ñëw jaale ma abi Ndour ñëw waxtaan ak sama frair yi wax leen carrément que ni ñoom mbëggeel bi ñu am ci man dañu ne leen ñoom ñoom dañ ma bëgg te dañ ma jàppee comme frère ndeysaan jàppee wuñu ma woykat wax sama kanamu frère yi sama yaay sama kanamu tante yi ñoom ñëpp. donc après bi nga demee amatoo woon contact ak ñoom wala souvent. yi ngeen doon toog nañu 4 ans ñu déggantewul téléphone. doo leen wax. abi daal mooy jékki-jékki woo ma te abi mosul taay di naan ma Pape Birahim demal nga dellu jël sa kii bi. ndeysaan. mennum abi laa la wax ñi nga xamante ni peut-être que ñoom ñoo ëmb foofu mennum abi moo nekk moo ci nekkoon di defar. mais amul woon amul woon kenn koo xamante ni yaa ngi doon jéem a sax dox affaire mooy que ni nga gis jàmm sax ma fenn fa amoon jàmm mais nga jéem a ne nit ki kaay ñu waxtaan ngeen jéem a xool lan ngeen amul. aussi dew ma woon pour may kenn benn opportunité pour nga dem waxal ma. dama xam ni bu fekkee lu nit def la yàlla mën na ko dindi après bi ñëw ci dëj bi la abi waxtaan abi ba mu ñibbee bi mu ñëw ci dëj bi jaale bi mu ñibbee sax ci guddi gi mu ngi may woo na ma wax naa ak Ibou fexeel nga dina naag ne le voilà quand même vous êtes resté quatre ans sans xam naa ne moom diggante bi ni di ko du teel xam naa ne fay bi dammaale affaire bi métti na <laughs> alors nga daal di décidé ne da ngay ñëwaat biir Prince Art. si après ñu waxtaan après. ngeen retrouvé wu. te li gën a garaaw mooy waxtaan bi gis nga bi ñu pour waxtaan amul wax amul fàttali amul dara mooy xam nga xam nga waxtaan ak ay nit ñu ne carrément dara xew mais effectivement dara xewul. d'après li nga aussi waxuloo man ñaata yoon ay ay ay journalistes yoo xamante ne léegi dégg naa presse moo tax lii dañuy xaar. xam nga presse aar dafa weex dunk na. xam nga dañuy xaar ku wax ak ku <laughs> ñu yóbbu ma ne ku bëgg sa leader finesse wala ku bëgg sa sa acteur boo xam ne da ngay toog nii sa biir télé mu lay waxal pour que ngay bég wala di xool cas boo man du ci man nga koy amee non man je si suis pas du genre quoi dara day am ma ne pat jàpp sama ñàmbur. Prince Art li leen di waxal ci àdduna bi di leen ko nguñ-nguñee di leen yàq seen der dañ leen di tooñ. dañoo weex dugg ko de. te ñu kenn dara. Hmm. dugguñu ci kenn. Hmm. waxuñu ci kenn lu bon. ak ñu mën a apprécier lu neex. ak ñu mën a apprécier artiste boo xamante ni nekkoo ci ñoom. ak ñoo mën a jaamu yàlla ay détecteur de talent lañ. a jaamu yàlla sax man xam nga jaamu yàlla moom may man man li may kii ci nit yi nga su ma doon nekkoon ak yow. su ma doon nekk ak yow di liggéey yow te yow doo jaamu ko yàlla yow doo yow doo ma neex à 100 pour cent quoi. te mun naa xëy na la yor moo tax yow doo julli. waxloo ko ak naan ci ndox mi laa yemale. mais ñu mën a respecté waxtu ñu mën a wax lu baax mu commencé ko seen seen seen seeni waajur la commencé. ñoom seen papa fi mu daan liggéeyee corniche mu ñun fa lañ daan foowee. sama nëng sama nëng de comprendre nit yu mën a help nit nit yu mën a wax lu baax nit yu neutre mais dañuy jàpp seen der yi des fois di ko yàq sénégalais nañu bàyyi yàq der. Mm-hmm. Mm-hmm. te yàq der lekk nit la rek. ak jël nit singale ko di wax ci moom loo xamante ni xamuloo ko. ay liggéeykat lañu. xoolal ay nit yu am jom lañu. yàlla moo moo leen def ni mu leen def famille Ndour la yàlla moo leen def li mu def. Hmm. nit munu ci dara ba yowmal xiyaam nit mënu ci dara. te ñu ngi forger seeni doom aussi di leen teg ci yoon boobu. di leen jàngal def ci ñoom éducation de base. waaw ça c'est important. donc arrêté leen quoi. pour man na gis nga nit bi toog ci ginnaaw teleem wala toog benn ginnaaw ci yoom amee la yow maam ku kenn xolam moo neexul moom nekkinam moo neexul. dundinam moo ko neexul. ko neexul quoi. <laughs> c'est vrai ki yow que moom am na temps bay jéem a xool lan sa der bi. parce que da ko sonal. absolument voilà kon nag buñ di nekk di ak atarew ci ay nit wax na lii di def na la loo waaye def baax na loo waaye wax baax na. Mm-hmm. on s'en fout vraiment. Mm-hmm. alors ce retour Prince Art on attend quoi ci. Pape Birahim album bi mooy génn wala da ngay defaat beneen. non dañu pare album bi album bi dafa pare. album bi léegi moo war a génn nii. waaw dañuy xool parce que mais yàgg na di loolu. ah la woon ba sànq man defar laa man defar laa. di nga am ay di ngeen defaat ay yenn aménagement yi. dama ne la xam nga defar dafa daaw. mun naa génnee ko mu dox ci kii bi léegi mën na defaru suñu borom dafa am. li ñu am utuwuñ ko yàlla moo ko def. Hmm. album la day génn incha allahu rabbi nit ci kontaan nee naa la melomaan dañ xaw a mer parce que gisut nee nañ melomaan yi dañ ne ñoom dégg déggutuñu lu leen neex. Hmm. liñ fi li fi nekk dañ koy consommer parce que loolu la ñu gis maam pen maam Kumba boo nekkee ci benn kër boo xamante ni ñu togg fa mbaxal nga xiif mbaxal ma ngay lekk rek. léegi te yow daal ci ñi nga xam ne ñoo war a ñëw alimenté waat kii bi jox leen lu neex yow ci nga bokk. ci kattanu yàlla dama koy alimenté. teg ko ci temps teg ko ci heure mun génn Sénégalais yi kontaan aussi ñëwuñu pour. benn mu melaat ni album 2014 bi. non da koy raw. Mm. parce que moo moom moo ko dàq. comprendre nga ñëwuñu pour aussi benn benn benn fugg wala ñëw pour ne dañuy def lii wala dañuy kii musique bi mooy li ma la wax sànq ñi fi nekk yàlla na leen yàlla defal jàmm. parce que mm. à chaque fois rek euh, booy yi ku leen di mën di jàppale na leen jàppale te man booy yi ma jox cër bu garaaw boo xamante ni euh, man foog ma leen di di. nit ñi nga ay nit bu la respecté da nga leen di respecté hmm. am na ci boo yoo xamante ni yu am talent yoo xam balaa bu ñu woyee ba pare man lañ koy envoyé pour ma wax leen lan laa ci xalaat hmm. yaa uli ñi nga xam nañ ko mun na way euh, comment dirais-je euh, ñu ci bari hmm. nga kii dañuy laajte sa xalaat alors Pape Birahim relation ak artistes yi euh. ak moroomu artiste am yi mais xam nga relation mooy li may wax keroog maag sama soxna am nga ci ay xarit so ñu sama soxna ñu waxtaan ma ne ko àdduna dafa am euh, yëg-yëg dafa am respect dafa am ak ak ak considération respect ak ak considération c'est des choses yoo xamante ne jam qui sont diamétralement opposées comprendre nga nit ki mun na la mun na la mun na la respecter te du la boole ci boppam mm. mais jox na la cër mm-hmm. mais ki la xamante ni daf la respecté pare considéré la mun naa ne comme euh, ku mel ni dem Gisee Demba Gisee du génnee dara te du ñëw ne ma. sama xarit boobu booy déglul ma lii. akal akal lakkale. Mhm. dañoo ne ma naa ko déglulu ma xool te lu ma ko wax pourtant loolu lay def Sidaat nekk sama nit Sidaat bonbon tëggkat ñooñu samay samay am naa droit ne samay xarit lañu. parce que hmm. dara ump ma Demba Gisee bu bëggee waxtaan man lay waxtaan de tout et de rien. benn jour laa ko yoxusu nànk rek xam nga dafa comme dafa dafa dafa con. mu woy mënu ma la bàyyee def naa affaire bu nice ma ne ko ah bon mu ma ko ban affaire mu ne ma laaj xaa ah, la ko mu tegal ma ko déglu affaire bi <clears throat> fàttali ma vraiment nongoloo ma ne ko booy na ma no booy bii laay ko ma bàyyi ko ma moon ma ginaaw rek ma fekk ma dem Amérique ma ne xaaral dem bi gis li ma jox nii moom laay sàcc ci nga gis ma def salange booy booy bi daloon bi bi nit ci bëggu ne xas nañ ma fu ne jëw nañ ma fu ne wax nañ ma lu ne mënu ma ko bàyyi courant bi may jëw kii mu ngi mën a way ba tey di ndikite <laughs> ba tax na mënu ma la bàyyee moom moo ko way moo ci nongoloo ñëw tegal ma ko. youtube nga sàcc ko ci moom ah d'accord kon démb égalité la. mu génn vraiment am succès bu doy waar quoi. après meral la ci. non non dafa doon ree mu koy doon ree naan fu mu dem na leen gis ngeen sama sama mënu ma la bàyyi la. moom woy la ci. mais vraiment mu nekk nit ku baax. Mm-hmm. mooy que ni sama nit la quoi. ndeysaan. mel ni euh, El Diaz nekk Medina El Hadj Keita nekk Medina booy ñu ma jox cër respecté ma quoi nekk samay samay nit. Mm-hmm. moo tax nit mën na la mën na la respecter mais considération ak respect c'est des choses différentes voilà mais nit ki mën ngeen bañ a ànd mais se yéenante leen jàmm man jàmm ji mooy lépp parce que li naan bu bu bu bu bu kii doon toxa doon xarit ndox kon li ñu naan ndox du togg du togg jën je sais mm, pas mm. li ñu war a amalante mooy que ni mooy mooy mooy yéenante jàmm bi kese moo ci moo ci kii mais artiste li muy dund ak lim lay wan sa diamétralement opposé artiste moom égal naafiq artiste moom égal c'est égal hypocrite ak euh, wax loo xamante ni da nga koy wax nii yaa ngi wax wax yu rëy de. non man li may wax man dama ko ragal wala man dama ragal. foo teg ne artiste égal naafiq. non mais déggul ma loolu égal naafiq égal hypocrite dama lay wax. Ah, non est-ce que dañoo obligé dundee noonu. non non du ma nekk di la fi di lu tojal dama ne la artiste égal naafeq égal hypocrite artiste mun na toog di jëw moroom artiste am fi nga xamante ni moom foofu la dëkk mun na ko jëw ay xaritam mun na ko jëw ak jabaram mun na ko kiiw ak kiiwam artiste moo mel pour noot gis ci loo xamante ni c'est sincère c'est c'est mais nag dafa mel ni showbiz moo moo dundee moo moo kiwee noonu. moo bindoo moo bindoo noonu quoi xam nga artiste mun na la war. te garaawul waaw te ñoom. mën na ne la cëm cim sama doomu ndey nga wan leen ginnaaw ñu wax lu ñaaw ne loolu seen seen seen seen vie la quoi loolu graaw hmm. yaay fexe bañ a jikkoowoo genre jikko yooyu comment ci ne sama xarit nga rek sama xarit nga moom du ma la wax lu bon du ma la wax lu ñaaw te du ma gisee lu bon lu ñëw ci yow dinaa la jéem a fexe mais am na si ñoo xam ne duñ nekk say xarit da ngeen di tey say am di jàmm lañ nii. kon yow bokkoo si ñooñu nga xam ne bañ leen laajee ñu ne artistes yi man ñëpp samay xarit lañ. ñëpp laa amal jàmm non man bokkuma ci genre fekk na yow au fond mooy loolu. xam nga dañuy wax ne man dama difficile difficile difficile man man bokkuma ci genre genre wax yu ñàkk xorom yooyu ay nit ñi samay ñoom ñëpp samay ah ma non non non dafa am ñoom samay xarit lañ am ñoom duñ sama xarit. xam nga si tu n'es pas mon ami tu n'es pas mm. mon ami quoi mais dama bëgg lépp loo am. yàlla kattanal ma dimbali ma ma yéene la ko. waaw bëgg nga am benn problème. Mhm. mais nit na dimbaliwoo nit ko sama xarit la bu deewee yaa fay jiitu alors que li nga koy yéene maar day taali loolu du yëfu jullit. au fond boo fay disjoncteur. non loolu baaxul fay disjoncteur bi dañu làqatu fay ko de kaj mën na dañuy làqatu xam naa ne ko. Pape Birahim di koy di di fay moytul dem fayaat bi yoon moom boo fayaatee xam naa boo bëggee ñëwaat moom. oh yëpp ngeen defee ba ma tàkk fexe bu ma tàkkate bu ma tàkkate bu ma tàkkate. non ba tàkk bi tàkk bi côté kii mais maanaam boo fayaate boo boo jëlaatee say kaaka dem dariwaa diriwaatee sa valise dem xam nga yaa indiwaat sa bopp. waaw man ba ma toogaatoon yoon sax ñëwaat day kii day nekk nee naa la defor yow chaque jour nekk ba mu neex ma rek ma bàyyi. je parle de la musique Pape. genre Prince Art wala feneen. non non non bu demee noonu. non Prince Art boobu moom c' est chose loolu sant yàlla la. Hmm. te man li ma ci jaaxal ñu bari dañu yaakaaroon ni man Prince Art dañ ma sàgganee wala Prince Art. ñoom ñoo ma yow yaa def de telle sorte wax loolu. parce que boo xëyee dem toog. nit mun nañ mal interpréter. d' accord alors que duñ comprendre. wala dañ ko dàq. wala ah wala kii alors que xamuñu ne problème bi. yow ci ñi doon tax. rumeur yooyu di alimenté wu yow yow la. moo tax ah may te moo tax expliqué naa leen te aussi déggoo ma daal nañu moytu rumeur mooy que ni maam maam Kumba Euh, ma wax la ni yow kumba moom de lii la moom de lii la. man ma dem toog ci benn jotaay. ne leen dégg naa de moom kumba lii la. foog nit ci di éviter loolu. nit ci nañu bàyyi loolu du du jikko jullit. dara bu la ko waxee te dëkkuloo ak nit ki xamuloo ko bàyyil di di di di expliquer te li nga expliquer la leeru la. dul sori. Mhm. bi expliquer naa ñëpp nu mu nu mu demee. te dama leen résumé euh, tegal leen def lu ñu defar la ku nekk tee sa bopp te kenn xamul lan la te dara amul. ba ñu demee toog dañuy non man waaw mu ngi noonu te bañ demee dañ toogaat dañ nekkaat ci jàmm ah, alhamdulilah comme daal jàmm dellu si na kon Pape Birame ñu ngi koy xaar ci yeneen affaire non may xaar sax dafa bari quoi tu vois kañ lay génn non non non loolu ci Ibou lay dépendre parce que dañ defaat benn dañ dafa am benn album boo xamante ni euh, lépp titre yëpp yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam lépp yonent bi la yëpp hmm. lépp amul amul est-ce que doo ibaadu yotam si suuf ah? est-ce que doo ibaadu bu làqute ci suuf non non non loolu lépp yoroon tiro te dañ ko dañ ko def ak yeneen sonorité quoi sonorité yoo xamante ni c'est open ok américains mën na ci gis seen bopp français yi xam nga naar yi ñëpp ko daa ku nekk ku sopp yeneen bi daal album album bu pare la bu ñu teg ok ça n'a rien à voir ak albumu euh, albumu kii comment dirais-je 2018 bi pare noonu aussi bokkul ak album bi nga xam dama ko liggéey ak euh, nit yi nga xam ngi Amérique ok vraiment waate bi jaay voilà xam nga donc euh, je passe tout mon temps à travailler quoi man sama lépp live damay liggéey donc même quatre ans yi nga toog da nga doon yaa ngi doon damay liggéey damay waaw damay bind rek damay liggéey rek parce que euh, li li bon mooy artiste bu feñak quoi même am na ñu may étiquette que ni ah non non non moom liggéeyul quoi alors que ndeysaan nit ki day liggéey rek alors entre temps pour ñu tëj Pape Birahim quatre ans yooyu oui yaa ngi toog di bind hmm. nan nga si nan nga doon def pour s'en sortir non parce que maa ngi doon am ay tournée ah, Amérique Canada xam nga yooyu damay voyager di di ci di dimbali sama bopp de. Mm-hmm. am sama ah, spectacle yu may def yoo xamante ni dañ ma ciy fay xam nga. aussi euh, am na ñu benn euh, société boo xamante ni aussi maa côté euh, immobilier. immobilier et ci affaire appartement aussi am nañu benn kii bu nekk. courtier nga boo xamante ni non man du ma ñu may ma ci daggal ma si tuuti de. Eh, yow Euh, da ngay agence daal euh, kii boo xamante ni affaire euh, benn agent kii boo xamante ni société boo xamante ni tout ce qui est événementiel ak imprimerie. Hmm. pour affiche yi publicité. Ah. ñu ngi waaw ñu ngi Nord Foire société boo xamante ni peut-être que liñ fa liñ fa liñ fa investir rek mët na xanaa peut-être presque xanaa un milliard wala dara. Ah, moom société bi euh, yow. donc euh, man daal wax naa société bi daal de kii. dañ ciy liggéey sama sama sama en tout temps foofu jëlee milliard boo mën a sama sama yi euh, yi fa nekk gérer ko. donc voilà di wax nii képp koo xamante ni sax soxla nga ci loolu collaboration la. waaye collaboration bu bu ah, leer ak ñoom. parce que sinon temps kii dafa xew lijjanti parce que boo ne diggante boobu def monté nga fi société boo xam ne valeur un milliard. la part moom muy tikkee waaw mais donc da nga am ay collaborateurs. yoo xamante ni ñu liggéey comprendre nga ñoom Michel. Euh, donc voilà gars yi en tout cas lépp loo xam dañ ko aussi dañ koy def euh, ci prix yoo xamante ni. maanaam yow actionnaire nga ci. waaw yu abordable quoi tu vois xam couvrir sa événement sa événement ku bëgg ay affiche yoo xamante ni yow yoo xamante ni bu ko xoolee danaa non lii c'est pas possible. kon bi ñoom nii prochain prochain. Ah? donc ACH la la mu ngi Nord Foire donc ku bëgg kii rek nga eh, contacter ñu. loolu publicité la contacter wu ñu kenn uy ma. Hmm? Pape tàggoo ah? waaw maa ngi tàggoo. <laughs> tàggoo gu ma de nga ma tàggoo wal maa ngi maa ngi remercier ñëpp non kii laa tàggoo gu ma waa ñoo maa leen di gërëm di di di rafetlu invitation bi vraiment di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni namoon nag non man xam naa loolu man ngay wër sama xarit nga sama doomu nga mm-hmm. nee li leen di gisee ci ci ci ci télé noonu nga mel ci comme ça bu am lépp lu nit waxat rek yow du dëgg mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. personnalité dignité xam sa bopp moo doon lépp lépp loo def dafay neex nit ñi. sa vie ko di ko étaler. xam nga maa ngi yow ma ko doo ko wax keneen. comprendre nga donc nit bu am valeur nga sa émission bi muy dalee daw ba léegi def na un an wala deux ans. oui est ce man maa woo. Ah, tey bu fekkoon damay bëgg pour expliquer yooyu noonu. man maa la woo de. man maa la woo de ne la Pape émission. voilà donc nag maa ngi mm. nuyu ñëpp di wax sama fans yi nga xamante ni ndeysaan mosuñu bàyyi mosuñu xaadi quoi ay nit ci ma bëgg yoo laa laa am yoo xamante ni mosuñu bàyyi quoi. xam nga maa ngi leen di wax ni que ni album bi pare na euh, di gërëm ñi nga xamante ni aussi euh, maa ngi doon liggéey ak ñoom avant sax may dellu ni Prince Art ñu nekk sama xarit yi ñoom xam nga Matar. Euh, Ibadou kon yeneen i producteur waaw Amérique am na ñu fa doon liggéeyal noonu nag nekk dañu nekk ay nit yu baax. yoo xamante ni vraiment dañu ma soutenir ci affaire yu bari quoi xam nga donc ay nekk ay nit yu jullite ko mataar ñoom Njawar Diop vraiment ay nit yu baax lañu. di ziar sama soxna ah, nit ku jàmbaare moom aussi yaay Mouhamed yàlla na ko yàlla defal jàmm. Euh, di ñaanal Sénégal gi ñëpp yàlla defal leen jàmm yàlla tàppe xol yi nit yi nit yi nekkaat nit. te doo jéem a doon ay nit yu pur quoi ba dina nekk ay fals quoi yàlla musal ci ci ci fals. Mhm. di leen wax ni li li li ngeen doon xaar muy album bi incha dina leen ko jox pour que ngeen kontaan. ñëwuñu pour xeex mooy li ma wax ñëwuñu pour xeex kenn ñëwuñu pour ki imposer kenn dañ leen di jox lu neex rek ngeen bégee quoi. Mhm. te incha allah loolu lañ leen fas yéene jox bu ko defee seen seen xol sedd quoi. xol sedd bég kontaan. <laughs> xol sedd bég kontaan alors ci loolu lu ñuy tëjee li nga xam ne moom mooy euh, confession bi tey ak euh, Pape Birahim ah kon na moon ko loolu muy sama xarit bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg jamonoy. succès ko. kon bi ma gisee nga yaakaaroon dama changé léegi dama dépilé bi ma dégg quoi changé woo. moom ku ma yëpp nga ma. soppe ko wala il reste le même ah macha allah et je ne aussi baat baa ngi fii macha allah donc ñun itam ñu ngi lay ñaanal yàlla defaat jàmm ak salaam. succès bi ñëwaat comme ni mu ñëwee woon. amiin amiin ah, ñu continuer di la béggee macha allah ñaanal la bu baax nag parce que nit ku baax nga. alors di remercier ñi nga xam ne yéen ngeen teewlu woon di di confession avec Mame Koumba tey ñu jàkkaarloo woon ak euh, Pape Birahim suba dinañ leen indil keneen ah, en attendant ma remercier tamit wala ngeen ànd ak man di remercier équipe technique bi parce que du fi jaar yoon ñoom la muy ñoom euh, Mamadou à la réalisation am di Moustapha pour la coordination. waaye tamit euh, ñoom Karim euh, ñoom euh, papalaay pour ci ci derrière la caméra ak Mbay borom son bi ak Eva également ci coordination bi jox leen dig daje ah Ndiaga Ndour ci production bi sama xarit bi. alaaji Ndiaga waay sama waay. <laughs> ah Ndiaga Ndour ci production bi. ak mu mën a may xaalis. da may xaalis. ma ne du ma may dara kii lan moo tax du may xaalis. non Ndiaga sama waay la quoi ndeysaan xam nga Ndiaga moom. Ndiaga da lay may xaalis Pape. Ndiaga xam moom mooy. Ndiaga xaalis man loo may. xam nga Ndiaga mooy bëggal boppam nit. waaw dëgg la ndeysaan nit ku baax nit ku baax a ngi noonu sama xarit. macha allah na sa jàmm yàgg. alors jox leen dig daje beneen yoon ak keneen ci biir confession avec Mame Coumba.